بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ci jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ci ci nekk ci turam ak santam nuyoo diine lislaam jóge ci mbokkum jullit jëm ci mbokkum jullit nuyoo bi ñëwee ñu leen xamal mbégte mi ñu am ci daje bi ñu daje fii di waxtaan li ñuy waxtaane di ci biir cadre l'islam di ci biir cadre yoonu murid amoon mbëg lool ci biñ ma ko waxee kawar cee waxtaane tey nag may jéggale tuuti ci ñàkk jot boo xam ne dama xaw a takkoo moom dañ ma ko waxee ba man nangu yante ko ñoom ba noppi gannaaw gi demoon naa ba am ci lu tiit ne du ma ko man loolu duñ lu ma tiis may ñaan yàlla ba yàlla def ma mën a teew fii teew fi dëgg la ni ma ko bëggee woon ba tey amewu ma ko ni ndax dafa laajoon jot ak temps ndax waxtu waxtaan bi ñuy waxtaan ci cadre l'islam l'islam mooy fondement bi bi nga xam ne yoon murid ci la digg Cheikh Ibra Fall itam nekk ci biir cadre murid ñu nar a waxtaane loolu mu laajoon jamono boo xam ne gëstu yu xóot te yaatu la laaj loolu yàlla dugalu ko ñu improvisé ko mu tàmbalee nag ci ko li nga xam ne mooy fondement bi mooy l'islam mbokk yi jullit fi njëkk a daje ay murit daje fi maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu bu dee ci jaamu te ñu di ko jaamu ci dëgg te koo jaamu jaamu nga jëriñ la ku ko jaamuwul ñàkk a jaamu nga lool la lu dul yàlla maa ngi seede ne Muhammad ibnu Abdullahi sayyidul arabi wal ajami wal jinni wal insi mooy yonent bi suñu borom yónni ci mbindeef yi mu di ko di aji bëgle ci àjjana ñeel way topp ñi aji ku di xuppee safaraan buggal ñeel ku wuteeg la yàlla dig maa ngi seede di wóolu di gëm tey dëggal ne suñu borom tabaraka wa taala tànn na ci ñi mu bind ay yonent tànn ci ñi mu wóolu tànn ci ñi tudde ay siddiqoona mooy ñi dëggal ba fa dëggal yam di gëm ba fu ngëm yam ba lépp lu ngëm di indi nit ngëm indi leen ko tànn ci ay suhadaa ñu di ñi jox seen deret seen bakkan seen alal seen lépp jox ko seen borom jënde ko la fa moom ñu tudde ko shahid nga xam ne shahid mooy ñëw ci martaba ñetteel bu yonent wéyee siddiq wéy moo ci ci topp lu tax shahid am martaba boobu mooy nit nga xam ne méddum àdduna dara takk ko ci dara xeeñu ko ci dara laañu ko ci moo tax aaj woowul sang wala sang wala jullee ndax ku takk dara la ñuy raxas shahid dara takk ko ba muy génne këram jaay bakkanam suñ borom la ko si yéenee dee xolam këram génn ca alalam génn ca doomam génn ca soxnaam génn ca dara topp ko mu suñu ko ba set wecc raxasu ba set wecc jëm ci boromam am martaba boo xam ne martaba bu kawe la ci yàlla li tax yonent yi njëkk a tudd tudd si biir xoole yi ñu leen foofu ak ci shahid nag yaatal ci tuuti dafa fekk ne li muy bëgg a wax daf ci am lu aju ci shahid suñu borom tànn ci biir mbindeefam yooyu la ay xarit mu tuddee xarit ba waxal ko boppam sàkk ci ay soppe ñu mu tuddee ay soppe ba waxal ko boppam sàkk ci way texe ñoo xam ne du leen mbugal mukk loolu lépp ci nit la ko sàkk ngëm nag di li lal lislaam nit ki bu rafetalee ngëmam nangu gim nangu ne yàlla ak amam lu am sikk la gëm ne yàlla waxante naag mbindee fi ci ay téere yu mu wàcce ci ay jaam yu mu wóolu gëm ne sàkk na ay jaam yu ko doy mu yëm leen ci mbindee fi gëm ne sàkk na ay malaayika yu nekk fa moom am ay melo yu jullit yi war a am fas ko ak ñu ci war a am seen tur gëm ne képp ku dee da nga dekki taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga jëfe woon ci sa dund gépp gëm dogal bi gëm siraat muy pom muy jëmm yépp di jéggi sooba yàlla dem seen kër bu àtte bi dogee ba noppi gëm balance yi leer yooyu nga xam ne dañ koy samp ci kanamu aras bi plateau féete ndeyjoor ak aras di leer kese bi plateau féete càmmoñu aras di lëndëmu kese ñu di ca peese jëfi jaam yi nga gëm ci terne yarant bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne way texe ñi daañ ca naan ëllëg te kopp yañ cay naane bari na biddiwi asamaan yi xam ne ay jaam daañu soowoon xiif mar làpp du ñu desee ci dara ba mel ne aw yow buñ ca naanee gën a nëkkax gën a naat gën a duuf nu ñu mësula mel ci àdduna te mbarka moomu soppee suñ borom yi daañu ca naan ëllëg gëmit amuk ñaari kër yi ñu safaanoo yi liimaan kon di loolu lislaam di cër yi seen jëfe gu ñuy jëfe li ñu leen digal bàyyi gu ñu bàyyi li ñu leen tere xam-xamu fa ko àtte ñi nga xam ne tawxid moo àtte xam-xam bu njëkk bi xam-xam bi tasawuf àtte ñu tuddee ko al ihsaan mooy rafetal jëf ji ndax jëf rek ku ne mën na ko waaye rafetal jëf ji mooy di jafe fa la ñuy rawantee mooy ngay jaamu sa borom mel na yaa ngi jàkkaarloo moom ngir wóolu bi nga wóolu ne boo ko gisulit mi ngi lay gis bu ñu waxtaanee tuuti ci lislaam waxtaanee melo yooyu yàlla bëgg ci jullit melo yañ sant jullit mu meloo ko dikk ci li ñu tuddee iraada ak iraada ci la turu murid soxi ko murid mooy lan mooy ku jëm ci yàlla wacc la nga jàppoon lépp xam li la sa borom sant ni mu jafee te ca la aj sa texe xam mag suñu borom ak sañ-sañam ak kàttanam mu wóor ne lim la sant ba nga war a texe na nga ko war a defee mëne woo ko ni nga jóg di seeti ku la ca tane ku la mën a jaarale ca yoon wax ku la ko mën loo loolu moo di iraada al iraada gannaawam la tërbiyee di ñëw gannaawam la tartiyee ñëw gannaawam la ñuy waxtaane yoonu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala an ci la ñuy waxtaane Ceerno Birahim Mbàkke bu ñu seetee jamono bii ñu toll daan gis ne li njëkk a war moo di al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar digle njekk digle li tax a mucc digle li tax a gën digle li tax a texe tere lii xañe yooyu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa in yastati fa bi fa bi lisanihi wa in yastati fa bi qalbihi wa ad'afu limaani jullit bu ne bu fekkee ne melaw jullit a ngi ci yow waxtu woo gisee lu yàlla tere lu lislaam bañ boo ko mënee dal di dindi na nga ko dal di dindi mooy la wax boo ko deful am nga bàkkaar bu la wóoree ne mën loo koo dindi ci sa loxo ndax lor ju ko ëpp nga ca wala boo ko jéemee doo ca man dara wala nga jéem ko ba noppi mu wóor ne mënuloo ko na nga ca wax ak sa lamiñ ba reetet ko ba ku ko mën a dindi dégg ko ñëw dindi ko wala loola amul nga wax ca la cay saxaat ñëpp xam ne lii baaxul te yow kat taxaw nga ci taxawaayu bañ ko ngir jëmm yàlla mi ko tere loolu lépp boo ko mënul wala ñeme woo ko nga sib ko ci sa xol wóor na ni lu naqari yàlla bu naqari la loolu nag mooy daraja ji gën a suufe ci li ñu sant ku jub ku gëm ku gëm yàlla ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi jëmm ju nekk ab sàmm nga ni ko yonent bi waxe te kenn ku ci nekk daañu la laaj ëllëg la nga sàmmoon ci am njaboot wala mu am ñum yilif daañu ko laaj ñooñu ci amul kenn lu dul bokk mi cëram yi ko yàlla saxal te cër bu ci nekk am luñ ko ca tere am luñ ko ca digal daañu ko laaj nam sàmme cër ya kon li njëkk a wax ci nit ki sàmm ay cëram sàmm njabootam njaboot gi yaa yow la ñuy laaj ëllëg seenu dëng ak seenu jub ba ba ñuy màgg ba mënal seen bopp dara daañu dem ba màgg sax ba mënal seen bopp dara bàyyi li da nga ko bàyyee woon démb am jeexit yu mu ca bàyyi ba tax yenn ci jëf mënu ko loolu dana la ko topp bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla ñu war leen a yar teg leen ci yoon lu jub xamal leen xam-xam bu wér yar bi ak xam-xam bi aju ci jamono ji nu toll ndax jamono ju nekk ak la mu laaj jamono ju nekk ak la mu aadoo jamono ju nekk ak ñetta nekk nañu war a takkoo ak la ñu war a xaroo yàqu-yàqu jamono ja la ñu war a xaroo jëf jaa jëf yu baax yu jamono ji ci na mu leen feeñoo ndax ab yaa dafa rëy dafay li njëkk a war ci jullit ndax day war ci moom ba lay jullee war yar moo njëkk a war jullit ndax doomu aadama am na ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci ay siddiit yoo xam ne deret ji daw ci yaram yi rek a cay daw waaye siddiit bu ci nekk am na jagle boo xam ne texe doomu aadama ji ak ñàkk a texeem dana ca jaar nit dana am ci siddiit yooyu benn siddiit boo xam ne si bitug leer la muy nelaw du yow ba waaju baax waaye yàlla romb ko mu dal di yow mel ni nit ki day keneen dañ ko soppi yeneen waaye nekk fa ka fa nekkoon nekk naka noonu safaan bi dana am si diit yoo xam ne si diitu caay caay la mu nekk ci moom di nelaw dara du ko yëngal dara du ko yee du feeñ ci moom ba benn bis rek kenn nit ku bon romb ko du ko laal du ko jege daf ko romb rek ba mu séen ko si diit googa dal di yow fuddu di ko bëmax jëme ca safaan ba rek loolu nag tax na war ko yar gën a seddaliku ndax daal waxtaane lu waxtaan yu gàtt-gàtt bala ñuy dugg ci tarbiya ak taqiya na nga xam ne noonu la yar di def ci deret nit ki ak ci siddiit nit ki ak ci xalaatam ma ne jamono bii nu nekk la loolu lépp gën a war ndax dem nañ ba àgg ci jamono bopp li ñu daan tuddee ay valeur amatu ci benn léegi bu nit ñi tekki ne dara lu dul benn mu di CFA nit ñi léegi yàlla ji ñuy jaamu jenn dong la mooy CFA valeur yi amoon mu di ngor faayeetuñ ko mu di ngëm faayeetuñ ko mu di xel mu rafet faayeetuñ ko mu di jëf ju rafet gisatuñ ko mu di muñ gu mat sëkk gisatuñ ko mu di bëgg yàlla gisatuñ ko gisatuñu lenn lu dul lenn lii rek ñu kon iblis di ilimaan joo xam ne ñi gën a bari ci jaam ñi ngi topp ci gannaaw ku nekk dégg na mujjub jamono yiñ ci daan wax sëriñ su baax bi ak borom xam-xam yi ak wàllu yi mettit nañ ko ba tàyyi tàgg nañ ko jaam ñi ba tàyyi xupp nañu nit ñi ba tàyyi ci bon bon yooyu yi ñëw bon bon yoo xam ne bu ñëwee ku warul woon a bon dana bon ku warul woon a sàggan dana sàggan ku waroon a jege loolu yàlla dana ko sori wala bu ko jegee it dana góorgóorlu ba def loo xam ne lii lu mu mënul woon la yàq-yàq yooyu nga xam ne dafa ñëw bawoon fi ñu xam nga xam ne daañu ko waxtaane dana wàll gaañ dana sonal koo xam ne amul benn dàq ci yàqu-yàqu mu di kilifa boo xam ne mu di génn àdduna bàyyi na fi njaboot boo xam ne bi mu daataan génn àdduna suñu borom war na ko bon boni jamono ak fa ñu fàqe fa ñuy jaar xamal ko waxtu wa muy agsi mu am njaboot boo xam ne ñeewant na leen bëgg na leen te yéene na leen jàmm mu gis ne musiba moomoom ngi dëgmal tax ruwaam gi ñuy wàcc di siisu ak dee am yàgg mu naqar loola mu tawat tawat ji yàgg te looloo koy waral te li gën a bari ci yàqu-yàqu yi bala ñuy wax yàqu-yàqu yi ñu jógee bitim réew yàqu-yàqu yi sosoo fii li ci ëpp mi ngi ajoo ci sàgganu way jur ni jur sa doom ba noppi def ko muy sa sang jur sa doom ba noppi ragal ko jur sa doom ni mën na duma ko dara te yaa koy jox añ yaa koy jox reer yaa koy jox lu mu sol bu amee problème ci yow dend si yaa koy lijjanti nga ne mën na duma ko dara loolu yàlla du ko nangu yàqu-yàqu yi dem ba nit di puukarewoo ak yàqu ku gën a am fit ci lu ñaaw wala lu juunu di ko puukarewoo di wane ne man ñeme naa man ku libre laa man ku am fayda laa muy jëf yoo xam ne seytaanis nit ak seytaanis jinne ñoo ko indil nit ñi seytaan yi ci jinne yi ñu dem ba seytaan yi ci nit ñi gën leen a bari dàq leen a yàq mais kon yarawaat yaa moom lu muy jariñ ak lan mooy yar ñu ne yar day bépp doomu aadama aajo woon na ko lu dul yonent yi ndax nit ñetti xaaj la xaaj boo xam ne mooy bi gën a néew buñ ko yaree mu yaru buñ ko yarul mu yaru boo gën a néew ay benn benn la xaaj boo xam ne buñ ko yaree mu jub texe buñ ko yarul mu yàqu ak xaaj boo xam ne yar ak bañ a yar lay male du jaar ci yoon wu jub mukk ci xaqam la ñu wax ne min ak tahzibi tahzibu zibi li yastadiye wa tax jëmm ji ñu yar jaarale ko ci yoonu yar xamal ko na muy xisaabe boppam waxtu wu juumee def dara loola dana dis gën ci kanamam ba tax na bu fa jógee dana def yeneen effort ngir gën a def lu baax jàdd booba mu jàdd dana yokk ab yaram dana ko gën a dëmax ci def lu baax dana ko gën a tax a muñ loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu di leen xisaab seen bopp di leen wéet ci bërëb lu wéet bi gàtt gàtt gàtt nga seet li nga wees ak li nga def seet li nga jëm seet li nga sant ak li nga ci def seet li ñu la tere ak li nga ci def ba tax mu ne al muminu waqaatun wal munafiq laqaatun laqaatun sallallahu alayhi wa sallam ab yar mooy indi sàmm te sàmm mooy lii takkal doomu aadama médaille yomal xiyaamati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen julli woon ba mel ne banti poutrelle woor ba mel ne junkoor te sàmm wu leen du leen jëriñ dara lu dul sàmm gu ngeen sàmmoo leen di jëriñ ibnu masud nee na doomu aadama du sa fàggu alal mu jóge ci lu araam mu sarxe ca ba ñu yool ko du ca dundee ba yàlla di ca def barke du ca bàyyi dara ci gannaawam lu dul loola nekk na yëbbalam ba ca safaan ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom dana fab yiw raxase ko ay waaye du fab ay mukk raxase ko ay maanaam lu baax lu bon mënu laa caa def lu baax maaleykum salaam wa rahmatullah nee na boo sàmmoo sàmm sa cër yépp sàmm sa xol boo julli woon lu dul boo julliwul woon lu dul julli yi juróom doo woor lu dul weeru farata yi rek it daañu la limaale yomal xam ci ñu gën a jaamu yàlla mu ne Seydina Al-Hasan al-Basri nee na benn pepp zarra mooy atom ci sàmm moo gën junniy mandaxe ci julli ak koor ñu ne sa alal ji nga fekk ci benn tànk bu lewul nga yëkkati ko delloo ko fa mu jóge woon wala nga tàggoog moom wacci ko moo gën nga fa fukki junniy dërëm def ko ci yoonu yàlla te yàlla rek tax ñenn ñi neen loolu sax moo ëpp doole juróom-ñaar fukki aj yu ñu nangu Sidna Abu Hurayra nee na suñ borom yomal xiyam ñi muy jékkiyaaleel ñi bokk moom jotaay mooy ñu sàmm ñi ak ñu dëgg ñi àdduna sàmm bokk na ci lii ci dimbali nit ba mu mën ko toroxlu ndax toroxlu bunt la ci bunt yàlla yi nga xam ne moo jëm ci yërmandeem toroxlu boo ko defee doo foog ne yaa gën kenn ni Sëriñ Tuubaa waxee ne laa taxju annaka zu fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaan dafa ne in taxju annaka zu fadlin ala ahadin قبل النجاة غدا من أي إنسان فاعلم بأنك ذو جهل وذو سفه وجاءك العجب واستدراج الشيطان bu fekkee ne jàpp nga ne yaa gën kenn ci nit ñi rek te fekk na ëllëg ñëwul ba nga mucc moom mu muccee di nga jàpp fii ci àdduna ak nu mën a demee noo mën a demee nga ne yaa ko gën nga fas loola ci sa xol xamal ne boroomu réer nga te boroomu ndox nga te jeyuk seytaane dugg na la te oj bu dugg na mooy naw sa bopp naw sa jëf mu ne nga xam ne xutba yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu daanaka xutba xam ne bu fa nit jógee dana toog ay weer xolam di nàcc te ak li ko yàlla may lépp teewul muy ragal loo jàmm ndax xam ne ne mucc a ngi ci ragal ndax liy jóge ci sëriñ bi jëm ci taalibe bi sax am na ñaari saat bëgg sëriñ bi ak ragal ragal yàlla ñaar ñooñu mooy tax mu agsi ci yow bu agsee ci yow agsi ci keneen nit ka ci ëpp bëgg wala mu ëpp ca ragal moo ci ëpp cër mu ni bokk na ci li nga xam ne dana tax nit ki di toroxlu xalaat gi muy xalaat mbir yi ay mbiram lëmu gi mu lëmu ak lënt gi mu lënt ba bis ba ñu gis jaam ñi ne daañu daje te mooy bis ba nga xam ne ne laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man ata Allaha bi qalbin salim Alxasan al-Basri radiyallahu anhu nee na diggante suñu borom ak jaam bu nekk am na dayo am na limite ci ay mooy boo xam ne bu ca àggee mu kaste xolam leer dootu ca dugg yërmande yàlla dootu ca dugg ngëmit dootu ca dugg mooy xatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim xishaawatun kooku sawaa'un alayhim anzartahum am anzartahum laa yu'minuun xatama Allaahu alaa quluubihim waaye nee na gën jaar jotali waar yu doomu aadama mën a waaroo fii ci àdduna mooy teewe borog jàngat jëmm ji nga xamoon ñu dax kan mu sew mu xóot yëkkati ko yoor ca di ko sëkka suuf ba mu fees ñu jal ko wan ko gannaaw fàtte ko lu xewati ci àdduna bokk ca foofa rek lay négee ba keroog saa di taxaw muy ku ñu fàtte noppi ci mbiram bokk na ci li gën a mën a waare ñu dem ci jamono ba waaratul kenn nit ñi di ko añee di ko reere te du tax kenn sopp ko biir bàmmee li ñu koy defee ba la ñu fay jógee tàmbali waxtaanu àdduna bu ñu ko jógee jëm ca kër ga it waxtaan wi jolli doo ko jóge mukk toog ay fan ngay delloo ci ne nit ki bu ñu la daajoon ci kees rek teg la ci ker da nga xëj da nga gêné da nga am métit boo xam ne métit mënu koo wees kees ko bu ñu la daaj bu ñu ko tegoon ci naaj wi mu rawati fa rawati na buñ gasee ak suuf si ni mu dëlli ba mu xóot suul ko ba jël ko kooku seetloo mu raglu lool te day day waa boo xamee ne nit doomu aadama tiim na ko te deful ci xolam dara xolam dee na xool bu dee nag li ca war jëm koo dundalaat ndax am na dee bu ca àggee mooy xatmu bi ñu wax léegi mooy limite bi nekk diggante doomu aadama ak boroomam ci ay mooy nga xam ne fa la ko yemale bu fa àggee mu kaste xolam fépp àggu fa nag am na yu ñu wax ne mën naa dundalaat xol daañu ko wax ñi nga xam ne nag dara ci àdduna mënu loolu yëngal tawati xol la ñu amee joo xam ne li leen gën a itteel li nga xamee ne bu seen yaram tawatoon ñu seeti docteur li gën a itteel si ñoom mooy ñu seeti docteur du teel docteur xol mu faj leen ci seen dàgg boogale tax dañu ne xal bu shaq yi kal xajar loolu la fi Ahmadou Bamba wax radiyallahu anhu xolu aji texee di mu ngi mel ne xeer dafa woo koom ak waar bu ko dugg wa xal bu saa yi di kal madar xolu aji texe mu ngi mel ne donj suuf bu ca ndox ne tax rek mu seey xol ku sol yàlla day yàbbi day waccu ak waaxat ni nga xam ne ku feebar noonu ngay waccoo ñam wi ci sa biir te mënuloo ko reesal wa sa yaalamu lazina walamu ay munqalabin yanqalibuna waaye jëmm ji bu dee fàttaliku du teewal yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu zaati hamlin hamlaha wa tara nnaasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakinna azab allahi shadid ba ñu jàkkaarloo saa yawmal xiyaam jëpp jabar ju doon nàmpal doomam dana tiit ba du ko talet daf koy sànni képp ku ëmboon da ngay dal di wasin fi saa si ndax tiit bu metti mi nga jàlloo nit ñi ñuy jàng ñu daanu mel na ñu màndi sàngara te màndi wu ñëw mbugalum yàlla tar rek bu keroogee la qadar la wala sama bu suñ borom yónnee malaayika yi ne leen indi leen ma safara nga xam ne juróom-ñaar fukki junni càllala lañ koy yeewee ñeenti tànk la am càllala bu ci nekk lan bi nga xam ne moo wét koo ba mat càllala gi juróom-ñaar fukki junniy seytaane ku yi seytaane ñoo koy jàppandoo buñ dikkee ba jub doxub junni ak doomu aadama yi ñu xam ne jaam ñi yàlla mere ñi ko tooñoon ñoo tax ñu woo ko dana rëcc seytaane yooyu ba dootu di ko mën a jàpp booba dañuy dal di dégg ñay yi muy noy yi mu gën a dal dënnu ko raat muy fuur saxaar si muy sànni ferñeent wu ci nekk dafa toll ne taaxu bu juddim bu rëccee ba wut si jàmm du amati kenn koo xam ne sa ñaari tànk dana la tëye ñii sukk ñii defeenu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam sayidina ibrahima alayhi salaam ne laxas ci peere arab fàtte na ismaila fàtte na isxaaq yonent yàlla Moussa jàppandi ci ñu doy arab fàtte na aaruna isa alayhi salaatu wasalaam fàtte na mariama nëbbu ci arab bu safara gëddee jàmm ba kenn xamatul foo toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom digal ko ne ko demal jàpp ko ay junni junni seytaane yooyu ak seen kàttan nga xam ne kenn ku ci nekk bu jàppoon suuf mokkar ci ko nii def ko bu naaw mënatuñ ca dara ba ñemee fi ñu koo jege Muhammad taxawee ci kanamam jàpp ci nopp bi mu ne ko Muhammad ibn Abdullahi jógal sama kanam mbindeef mu sell nga bëgguma laa jege bëgguma laa laal bu ko defee suñu borom gëdd safara ne ko tegginul mbindeef mu tedd nekk sa kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp nopp ba xëcc ko ba mu ñëw ca càmmoñ la mu yës goor foofu bu keroog dee taxawaayu juróom fukki junni at yi la fay xew mun na koo waxtaane ci guddi gi dañ koy gàttal ndax yi ñu bëgg a wax bari na te duggaguñu ci Maodo bi nga xam ne mooy waral waxtaan yi mu di Thierno Ibra Sati ak tarbiya ak taqiya ak jëf si Amadou Bamba radiallahu taala li tax ma wax loolu mu di loo xam ne dama koo gendiku rek ngir fàttaliku dañu bëgg li ñuy bëgg a wax dëgg dëgg suñu xol ñu mën a teewlu ndax ñu gën a bari ci jaam ñi bu ñu tiitul rek du ñu teewlu ba ci julli bu ñu tiitul du ñu mën a teewlu nag waay te julli gi la teewluwul du dara loo ci am dara li gën a mën a lor doomu aadama mooy njort lu rafet ak njort li foo ko mën a teg bu rafetee bu mu ëpp dana lor dana lor ko jëf ndax dana ko wàññi te dana la waral ak wóolu te wóolu te xam yàlla xuruur la maanaam ak wóoru la wax suñu borom tabaraka wa taala boo seetee jëfam ni ko sëñ Touba waxee yuliju fi leyli nahaarahu kama yuliju fi nahaari laylan azlama banasianatahu daqiqatan laysa tara kayfiyatan laha allati tadabbara yuliju fi leyli nahaarahu kama yuliju fi nahaari laylan azlama suñu borom yaxruju al xayya min al mayit yaxruju al mayit min al xayyi dana fekk lu baax ba bokk ca la gën ci lu baax mu nokkee ca li gën a bon ca lu bon dana fekk li bon ba bokk bon taaw bon mu nokkee ca la gën ndax kàttanam lay jëfe te kàttanam li muy fenn nan la alak yoon kan am nga xam ne doomu noox la te noox alayhi salaatu wasalaam ci ulul azmi la bokk doona siddiq la doona shahid la doona ci abdaan yi la bokk wala ci awtaat yi wala nga ne sax xutbul xawsi la yonent la yemul ca yonent ga nabiyul mursal la yemul ca irsaal ga bokk na ci ulul dañu àgg ca maax bay gën a kawe daana ko waxtaane insha allah waaye doomu aadama bi fu mu toll war nay muslu ndax suñu borom bañ koo boole ci nga xam ne ñoom lay wax ne allazina dalla saayuhum fi lxayaat dunia wa hum yaxsibuna annahum yuxsinuna sunan jàpp ne yaa ngi ci la gën ba dem alaxira wa badaalu min laay maram yakunu yaxtasibuna nga gis ci yàlla lu bokkul ak la nga foogoon fii la ko nit kiy wattandikoo loolu tax na ñu di ko laabiire ci na bari ñaan suñu borom sopp nag koy ñaan ndax ku tabe la te tabe balay feeñ nga maye te ki lay ñaan ngay njëkk a may ci ki la ñaan ak jéggalu ñaan lu bari ak di jéggalu foo toll bokk na ci li xet li jaam war nañu kon ñun doomu aadama yii nu fexe ba béréb bi nu nekk di fi wëndeelu di dem ak a dikk nu sotti béréb bi def ko béréb bu ragal yàlla def ko béréb bu wattandiku def ko béréb bu ànd ak sa xel def ko béréb bu bañ lu jóg yóbbaale la ndax nit ñi kat ñooy melal béréb ñooy suuf béréb ñoo koy weexal ñoo koy ñuulal ñoo koy xonqal ni mel ñoo koy melal li taxoon sëñ bi daan def samp daara mooy ber taalibe yi ñu mën a jaxasoog waa adduna yi nga xam ne dañuy daal di nekk rufatun te wahiya ixwaanun lahum himamun nga xam ne kenn ku ci nekk lu baax li ñuy def ci yow te doo gis mukk ku la wax safaan ba doo gis mukk ku jëf safaan ba doo gis mukk lu jëm ci safaan ba bu yàggee da nga koy fàtte bu yàggee da ngay melowoo melowoo wuuteeg safaan bi da ngay melowoo melowoo koo xam ne xamul lu dul lu baax xamul lu dul yàlla xamul lu dul sëñ bi mun la jëfe leneen dund moom bu demee ba loolu sax ci moom ba mu weesoo yàqu ba mel noo xam ne moom ci boppam baaxam bi day wàlle mu ber ko boole ko ñeneen ñi muy war a defar ñoom it fële ñooñu ñuy defar ñoom it bu ñu matee ñu ber leen ñoom it boole leen ak ñeneen bu ko defee bu yàggee réew mi daj bu continué woon réew mi daj noonu la bëggoon a defal defar réew mépp defar nit ñépp ñépp dem àjjana waaw loolu tax na li ñuy tuddee mujtama arab di ko wax mujtama li tubaab di wax milieu ñu war a sellal sunu milieu bu ko defee sunu doom bu juddoo ci milieu boobu yaram yomb day baax bu koy waxul dara ndax du xam bon sunuy mbokk yépp ak sunu bopp noonu lay dal di mel waaye jaxasoo gi nu jaxasoo waa adduna waa adduna jaxasoo ñeneen ñu leen gën a addunaa ñooñu jaxasoo ñeneen ñu leen gën a addunaa jàngoro ji tasaaroo ñu wàllante mbon matale sàggan matale réere yàlla matale bëgg lu baax jafe kon lu dal ñoo ko teg suñu bopp waaye muy war fàttaliku ne bisa ngi ci kanam li tax dañ tubaab yawmun yafirru min al mawludi waliduhu yawmun tarama bihi niraanu bi sarari ba ne yow wa zalika al yawm la yughni banuna wala maalun siwa mughratin lillahi muqtari suñu borom wax na ko yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imri'in minhum yawma sha'nun yughnihi keroogee ku seen sa ndey daw ku seen sa baay daw ku seen sa doom daw ku seen sa soxna daw ku seen sa xarit daw ndax da nga ne nekk gi ma nekkoon moom ci adduna jombul ameel naa ko xaq yoo xam ne bu ma ko gisee mu laaj ma ko te man mii kat li ma am doyu ma bu ñu fabee ci man ay xaq fu ma jëm nga daal di daw nëbbu léegi nag bu ñu seetaatee suñu bopp gis ne suñu yàqute feeñ na ci suñuy wax feeñ ci suñuy jëf feeñ ci suñuy bëgg-bëgg feeñ ci sunu nekkin feeñ ci sunu jëflante ak sunu morom mu tàmbalee ci xale yi bala ngay ak ci mag ñi ndax mag ñi kat ñoo waroon defaru defare defuñu ko xale yi yàqu ndax amuñu ko leen defar xale bi ku koy yar mbedd bi bàyyam amul jot bu xëyee ne day liggéeyi waa seemi di bëgg a noppalu balay ñaar waxtu mu gontaat kañ la koy yar te loolu lépp dana dox ba jamono indil ñu ko kon nu war a delluwaat seetaat suñu bopp kon di fexe di seet ay ay pexe yoo xam ne moom la ñuy def kon ba mucc mucc le kon xale bi ku koy yar moroomam yu mel ne moom ñu bay bayle ko kenn yaru xale bi ku koy yar cinéma xale bi ku koy yar roman yu bon yi xale bi ku koy yar madame yi jaar fii mu jaaroon ba wees fa ba seenu mbon nag ñoom lay dajeel ñuy wax waxinu wayu te def ko mu dig njàmbaar def ko mu dig am bopp def ko mu dig am fulla sàkk seen baat yi wayu yoo xam ne moom la ñuy wax di waxee déggoo lool nag ñu ne nag gannaaw ñu bon ñi dañoo déggoo ñu baax ñi nañ boole def seen bopp benn loolu moo tax mbootaay yi baax ndax dimbalante la soññante la leeralante la waarante la fàttalante la ñu daal di nuy créer mooy li may faral di wax naan nun dañoo xam te ñor a guru ndax jàngoro yoo xam ne réew yu ñor ba àgg ci xam ñoo ko jàngoro woon dañ ko wàll nun te ñor a guru loolu mooy yàqu-yàqu bi dañ daan def waxtu woon gisee xale buy def lu dul noonu ci mbedd bul xam ku ko jur sax nga dóor ko wala nga gëdd ko daax ko léegi boo dóoree doomu jaambur ci mbedd yóbbu la police ndax da nga daan ndax doom ji nekk doom yi ñëpp la doom bi mag mu nekk kon yàqu gi muy yàqu fi bàyyam nekkoon dana ko tere maa ko war a tere léegi nag bàyyam sax bu ko doon gis du ko tere kenn dootu wax kenn dara kenn waxatul kenn dara xale yi ba ñu dañu leen waxul dara ñooy màgg nag nekk ay mag buñ màggee ñooy yées mag ñi ñoom itam bu seen doom màggee yées leen ñoom itam bu seen i doom màggee yées leen mooy li ñuy wax masix dajjal dal di ñëw xamuñu warma warmaal kenn ku leen mag nan la ñuy warmaale sax ñàkk fayda lañ ko def de ragal lañ ko def ñàkk bopp lañ ko def ni ñu mel ni ñu ko tuddee féetéerlu mooy tamarrud al mutamarridun mooy ñu féetéerlu jaaratuñu ci benn àtte jaaruñu ci àtte kenn la leen seeni seytaane yi dicté rek la ñuy def seen seytaane yi jiitu fa ñu jaar rek la ñuy jaar kañ leen topp rek waaye ku am sa doom yaruloo ko yarul islam bu yemal xeyaamee bu ngeen layoo mu yey la ndax am na yu bari yoo xam ne doom dana ko layoo bu wàjju kon xamal leen ay teggin jëf ju yiw wax ju yiw yar leen yarul islam mooy li njëkk a waat ndax suñu borom neen laqad xalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliina illa allaziina aamanu wa amilu saalihaati xanaa loolu dafay gudd lool duñ ci demee te du mawdu bi damay gàttal. kon danaa tëb lu bari nag ngeen jéggal ma sax waaje lu ma ko woon na ma ko waroon a waaje waaye liñ ci waxtaan rek dana doy ndax dana sonn sonn sonn te ñàkk jot lu laal ko ci bopp ci Cheikh Ibra Faati radiyallahu anhu ci li ñu bind nee ñu 1862 la fi ñëw ci jamono ji jóge fi ci weer wu ñuy wax août di 1943 mu defe ko ci dëkk bu ñuy wax Jabakounda ci département wu Nioro di ki ko yar gannaaw waajuram di Cheikh Ahmadou Bamba magam di tedd ji radiyallahu taala mu di ko xëroon ci moom ba néegul woon a bàyyi ak yaram ak kenn yaral ko boppam jàqliwu ko woon moom daanaka senn saa lu dul jàqli ko bu la ñàkk bu ñu fi jógee dem ci géej gi bàyyi ko njaboot ci mu doon koo xam ne fépp foo xam ne bopp ma ko fa doy moom la fay daan yebal bu mun la dem digganteem sax ak nasaraan bi li ci gën a bari moom rek la daan yebal ndax xam gi mu xam ne ku mat la ci xel ci teggin ci yarute ci teey aw taflit ni mu demee ak géej gi waaye jihaar buñ ko booleeg yeneen gi fi topp yépp buñ ko xiyaasee ci digle li jaar li war tere li bon mu ngi demee ni serati woowu ci wetu géej gi Cheikh Ibrahima Mbacké demoon dina nit ku ñu xam ci wet boobu boole ci ay wetam ak takkoom ak wóoram ba ñëpp wóolu ko ba sëñ Tuubaa ci boppam wóolu ko te sëñ Tuubaa mooy ci yàlla wóolu mu wóolu ko muy kuréel koo xam ne ak matam tax na ni mu matalee ak taalibe matale ko xaqi sëñ Tuubaa ak wormaam la matale woon itam sharia muy koo xam ne bu ëppalewul kenn du jotle mu boole woon ngir kamaal gi mu am noorul xaqiqati ak nooru shariati nee ñu alkaamilu man laa yusu nuuru maarifatihi noora wariihi Ahmadu Bamba ñi daje woon ak moom topp ko dañoo bari waaye si Ahmadu Bamba du law bi bi yett këll yi yàlla mooy law bi bi yett këll yi dañ koo sant mu feesal ndab yi rek ndax mu nekk la ca xaj la cay def ñi nga xam ne leeru sharia bu ñu ko boole bi leeru xaqiqa mu seet la leen gën a sowe mu feesal leen ak boobu ñi nga xam ne leeru sharia la ñu mën a attan mu sol leen ko ñi nga xam ne leeru xaqiqa la ñu attan mu sol leen ko ñeex attan leeru shariat wa wa nuurul xaqiqat nag na ci Ibra Faati mu boole leen ñaar ñi kooku mooy kaamil moo leen wax ne al kaamil man laa yusulu wal maarif fi noor a war a yéegi góor yàlla nag bala ñu koy nag ca andaar ju mat ja day boole sharia ak xaqiqa waaye andaar la joo xam ne ñu bari ci góor ñi bu ñu leen ca nattee duñu ko fees ndax bu ñu ko feesee ci wet gi duñu ko fees ca wet gee loolu moo tax maam Thierno daan nekk ca kanamu rak ba ca kanamu mbambóor ma ba abadan boole woon na xel mu lëng mu mat sëkk ak imaan ju dëgër yoo xam ne amul yemukaay di nit ku mën a wuutu ku nekk ca la muy wut ku ko ca wuutu diit imam li ñu tuddee imam ndax imam du imam imaamu salaat rek ci jiite julli ñan la ñu tuddee imam ñi ci gën a al aimatu ñi ci gën a siiw al aimatul arba lan taxoon ñu mat imam saxaaba yi kuñ ci gën a wax imam mooy imam ali nab jalib xam nañu imaamu abu xanifa xam nañu imam malik xam nañu imam ahmad ibn hanbal ak imaamu shafii yi waaye imam foo ko fekk mooy ka gën a mat xam-xam ci xam-xam ca wet ga mu nekk boole ko ku njàmbaar boole ko ku farlu loolu moo tax sëñ Ibra Faati imaam la woon boole na sharia ak xaqiqa te xaqiqa du lor sharia sharia du lor xaqiqa li ñuy wax ak tawaasunu fil fadaili mooy li gën a jafe tawaasunu fil fadail ku gën a def ci mbindeef yi mooy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin ndax dafa boole jaamu malaayika yépp ak seen melo ak jaamu ñépp ak seen melo boole ci meloom akub jaamoo ndax malaayika yi malaaka suñu borom nee na laa ya'tuuna allaha maa amaru wa yaf'aluuna maa yu'maruuna tagg woowu ñoom doon na ko xam ñooy ñi nga xam ne duñu mooy mukk suñu borom duñu juum duñu jaar kenn ku ci nekk genn forme jaamu lañ la sant ñii dañuy rukkoo duñu yëkkat duñu siggi ba abadan ñii dañuy sujjóot duñu yëkkati seen bopp mukk ñii dañuy taxaw duñu sëgg mukk ñii di sàmbaar rek ñii def tasbih rek ñii def tahlil rek ba xaw waaye ñoom ñëpp kan ku ci nekk maqaw mi nga toll ci jaamu bi ngay def li doom aadama yi jaamu lépp buñ ko boole woon duñ mat la ngay jaamu ci benn laxda waaye rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa kenn ku ci nekk moo la ëppale ca maqaam moom nga nekk ci ñoom malaayika yi boo kenn yonent itam kenn ku ci nekk ca la nga jagoo mu ëppale la ca ba na boole biddeef yëpp itam lañ am te loolu du tee du benn fadila du ci penc benn fadila ba wàññi ko wala mu réeral ko wala mu nëbb ko loolu moo tax ñu ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin ci saahiram dong moo nekkoon général bi jiite guerre bi moo nekkoon mufti bi nga xam ne ku gat moo lay gàgganti moo nekkoon professeur bi nga xam ne mooy jàngale moo nekkoon xaadi bi nga xam ne mooy atte mooy imam bi nga xam ne mooy jiiti jàkka ji te ni mu yore këram ñi góor ñëpp yore seen kër la ko yore di ko doxale ndax loolu lépp te teewul fu mu toll benn gendiku bët benn xesinu bët du ko tàggoog boromam suñu borom dana feeñu ci laxsa bu nekk téeméeri junni feeñu feeñu bu ci nekk dana ko jox xaqam dana sàmmonte moom jox ko ormaam booleeg loolu lépp te suñu borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin kooku mooy alkaamil ku malaaw yi ci def nag kenn ku ci nekk te lan ko doon te nga nekk kaamil moom la ñu tuddee ak tawaazunu fil fadaili mooy équilibre li ñu tuddee ak yaqin moo di ak wóolu mooy ngën ji li ñu jox doomu aadama yaqin ak sabaat ak al quwwat fil qanaat yaxlafaat dafa boole woon yaqin ba mu àgg ca cat la mu boole ca quwatu nafs ba mu àgg ca cat la mu boole ci alqaraatu doyloo yàlla ak yonent bi sëñ bi ba du wuti fenn dara du jóge fenn jëm fenn ndax doylu bu ko yàlla doylul ngir opposition léegi ba ñuy dem ci mbirum tërbiya ak tarqiya daan def benn tamhid bu gàtt wala maay wax nañu ne amul benn yonent wala benn nitu yàlla bu ñëw fii ci jamono ji lu dul am nga lu ñu tuddee liyet na maanaam mooy ki sëf ci yow sa jaraaf ji nga xam ne gannaaw yow moom koo xam ne mooy jindi nit ñi ci sa jub di xeeñtu say jeexit di dox ci sa kaw ngir amee sa jub boo ko jógee mu wutu la ci zahir wala ci baatin wala ci zahir ak baatin mooy taxaw sa place dafa dale ci Muusa ibn Imran ci jë ba ci jarbaatam boobu nga xam ne mooy Yuusha ibnu Nuux Yuusha ibnu Nuux ko àndoon ak Muusa nekkoon liet naam bi gën a sës ci moom bu mu ko jógee moo ko wut di yonent ne moom naka noonu itam Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar ak Umar ak Usmaan ak Ali mboolem saaba yi naka noonu Isa alayhi salaam ak xawaari yoone yépp noonu lañ demee woon ci ñoom sëriñu taari bi nag fa mu tàmbalee ca aadama kon moo tax adduna bi suñ borom naree indi aadama ci kaw suuf te malaayka yi xam mbirum aadama ñu di nga ne suñ borom suuf sii béréb la boo tànn boo sell boo tàkk boo fa yóbboo doomu aadama daañu fa mooy daañu fa tuur deret te suñ borom xamal leen ni leen suuf dañ koo bind ngir aadama ak ci sëtam ndax li ci biir suuf du ngeen mënu ngeen koo xam mënu leen koo jëfandikoo malaaka doyul safara dara malaaka du bay malaaka du lekk malaaka doyul ndox dara malaaka doyul essence dara malaaka du war oto malaaka du téléphoné yi ci biir suuf yépp doomu aadama taxaw yàlla sàkk ko mu mel ne kon bato boo xam ne dafa déqee fii war a jëmi béréb bu sol ñu prévoir liñ fiy war a soxla lépp ba ba muy àgg ñi fiy juddu li ñuy war a dundee li ñuy war a sol li ñuy war a li leen di war a faj bu ñu feebaree ba li nga xam ne doomu aadama dana ko aajowoo lépp mu dugal ko ci biir suuf nga xam ne kon doomu aadama taxoon mu bind suuf ba nga xamee ne malaayka yi di ngat nañu te suñu borom wan leen li ñuy jëfandikoo ci kaw suuf ni leen lii nu mu tudd daal lu muy jëriñ xamuñu ca dara ñu ne ko subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim mu ne aadama xamal leen leen aadama xamal leen lu nekk na mu tudd ak lañ koy jëfandikoo ak la muy jëriñ tàmbalee ca loola muy saahir ba àgg ca baatin ba malaayka yépp wàcc nangu ne aadamaa leen raw ñu sampal ko fii muy waar malaayka yi di leen jàngal nekk seenu sang booba la ustaaz ak tilmi tàmbali booba la sëriñ ak taalibe tàmbali naka jekk booba ba léegi awliyaaw yi ak siddiqoona yi ak abdaal yi naka noonu sëriñ ak taalibe rek baw muy jeex alxasan al basri yi mi ñëw ci gannaaw yonent yooyu atabatul xulaam mi doonoon jarbaatam moo doon mbootam mooy ci mu gënoon a wóolu ci mu gënoon a doyloo moo ko daan wuutu fépp fu jëmmam teewul sëriñ saqti yi naka noonu moom it lay yare limaamul junayd bi nga xam ne nee ñu sayidu taifati ak suufiya kon sëriñ si ñooy yoon bi jëm ci yàlla ñooy tegtale yàlla ñooy bunt bi nga xam ne ku jëm ci yàlla ci ngay jaar kon amul sikk ci képp ku nam ma àgg ci yàlla azza wa jalla nga am kuy jàpp ci sa loxo di la wommat ni ñu ko misaale teewul nag loolu dàqul ne lu jaadu la suñu borom sàkk jaam boo xam ne moo koy tànnal boppam jubbanti ko boppam te du jaar ci kenn ni woytul xaran yi defoon ak ñeneen ñi nga xam ne suñu borom moo koy jubbanti moo koy aar digganteem ak seytaane digganteem ak bon boni bakkan digganteem ak njuumte digganteem ak bànneex kenn mënu koo weddi nga xam ne kon sëriñ ak taalibe lu yàlla tëral la mu di yoon woo xam ne mun la ñàkk ndax faw mu am gaa yu jëm ci yàlla te war nañoo àgg ci yàlla te faw mu am ñi ca àgg ñu leen di teete nga xam ne kon taalibe bi du dañ di topp ndigalal sëriñ bi fu mu ko bàyyi fekk ko fa lu mu ko sant mu def lu mu ko tere mu bàyyi ba muy àgg ci boromam waxtu àggee ci boromam nag doylu suñu borom ci boppam moo koy tërbiya moo koy taqiya moo koy xamal moo koy tere moo koy digal bu boobaa day doylu wëri sëriñ ba mën na sax waaxu jóg jëm ci sëriñ ba sax araam ci moom ndax dafa jëm fii sëriñ bi jëm fii seeni naan waay day wuute suñ borom daf ko naan bàyyil képp ku dul Muhammad wala ku dul man bu ko defee dootu amati sëriñ fépp àggul foofa sëriñ a koy teete loolu moo tax ñu ne suduuru laxaraare kubóoru lasraar te gi ni nga xam ne nag moo waat ci diggante taalibe bi ak sëriñ bi wala maa wuy tëral nañ ko ba sëriñ ak taalibe tàmbalee bokk na ci bu fekkee ne sax dafa toog di jàngale nga bokk ci ña toogal moom lu sa xam xam rëy rëy rëy rëy bu waxee du noonu sax na nga ca ànd lu mel noonu arrivé na Muhyiddin Ibn Arabi dafa amoon benn sëriñam boo xam ne nitu yàlla la ku foor muy jàngale bis ba àgg ci masala moo xam ne nan ko waxe Ibn Arabi ànd ci ak moom Ibn Arabi xamal ko ne loolu day dugg sama bopp li dugg sama bopp mooy nangam ak nangam ba mu fa jógee ba dem ca gannaaw ko nga daje Sidina Xadr alayhi salaatu wasalaam bëggoon nañu Sidina Xadr wala ku ne ko du ngeen bàyyi di xëccoog sëriñ si ci ay wax mukk Sidina Muhyiddin Ibn Arabi dal di jàjju dellu si bi mu ñëwee ngir bëgg a tuub xamal sëriñ bi ne ko Sidina Xadr jàjj na ma ba mu agsee ba mu ko jubee rek sëriñ bi dal ne ko taalibe yi am na ci ñoo xam ne dañuy weddi sama wax ba batañ gisee Seydina Xadir mu soog leen a delloo si Muhyiddin Ibn Arabi daal di wàcc jan teewul kat bi mu demee ba mat itam nee na maa nga jàpp te la ma jàppoon la ma waxoon mooy dëgg rek waaye nag yar nañ ko Seydina Xadir xamal na ko nan la war a war maali sëriñ ak iraada bi nag mooy nam ci yàlla lan mooy murid lan mooy muridu sadiq ki nga xam ne ñu ko waxoon tànk seet na digganteem ak boroomam li ko man ci bari lool mu xam ne keneen rek moo ko mënal mënalu ko boppam mu bàyyi lépp lu mu jàppoon bàyyi lépp lu mu amoon fàtte lépp moomatul dara bëgg-bëggam di leen rek di yàlla rek mu seet bunt bu muy jaare ba àgg ci yàlla muy jëmm joo xam ne jaar na fa ba àgg ci boroomam mu def ci kooku ñaari xaaj la taalibe bi ñaari xaaj la sëriñ si ay xaaj lañu daan ko waxtaane taalibe bi ban ban bi ñu tuddee takkoo mooy taalibe bi nga xam ne dafa toog këram di ziyaare si di déglu ndigal waaye nekkul ci tool bi di bay nekkul koo xam ne fu mu nekk dañ ko fay yebal ndigal bàyyi ko fa ba wax moom fay jóge kooku lan mooy mbiram bari ziyaare ziyaare itam ñaari xeet la daan ko waxtaane ziyaare ngir tëbbu ak ziyaare ngir jaamu yàlla bokk na ci ziyaare ngir jegeñ jegeñ lu sëriñ bi mooy ziyaare ngir jegeñ jegeñ lu yàlla ziyaare ngir tëbbu nan la ñu ngi ko jëlee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne Seydina Hamza la bokkoon ci saxaaba yi daje naa Seydina Abu Bakar ca marché ba daal ne naa faqa Hamza la wax naa ko lu bari ci ay conférence maanaam moom mi Hamza la mooy wax mu ne man Hamza la daal naafeq la mu ne ko lu tax nga ne naafeq nga mu ne ko damay def bu ma toogee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay mel ne maa ngi jàlloog asamaan juróom-ñaar jàlloog arasa kursi yooyu yëpp waaye bu ma fa jógee ba dem ca marché ba waxaale yi jënd bi jaay bi ma dellu si ci kër gi ak xale yi ak jigéen ñi ak seen i problème ma dellu melaat neneen ma ne kon naafeq la dina Abubakar ubbeewu ko ndax yonent baa ngi ci kaw suuf bu fekkoon ne fekk na yonent bi nekkatu fi dana ko wax la mu ko war a wax waaye dafa jàpp ci boppam ba àgg ci kanam yonent bi salaatu mu ne ko waxal la nga waxoon ba mu ko waxaatee yonent bi ne ko ni ngeen di mel day bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko doon mën a wéyee da ngeen di saafoonteeg malaayika yi maanaam da ngeen di gisee malaayika yi di waxtaan ak ñoom waaye nag nit ñi di leen def noonu rek maanaam di leen siyaare rek léeg-léeg di ñëw di toog di siyaare di dem di siyaare di dem nay gën a bari rek bu yàggee Imran ibn Husayn moomu dem na ba àgg ci loolu day jàlloog malaayika yi di waxtaan ak ñoom di leen laaj lu ko lënt ñu di ko ko wax muy jekkaale ñoom di nuyoog ñoom ci saakonte bu mu toogee ba benn bis mu am benn taab bu metti ñu ne ko da nga koy ñaar parce que dafa daan muñ rek dafa ne woon day muñ ba yàlla yëral ko mu dem ñaax ko gisatul malaayika yi meloo mu di ko jooy di ko naqarlu ba di dellu di dolli ay jaamu yàllaam ba suñu borom delloosil ko melo woowu taab ga daal di dellu seeti mu bañ koo ñaakati bañ koo faj bàyyi ba mu wér mu mu dese melo woowu mu ne kon taali bi boobu li koy jëriñ na bari ziyaare ndax waxtu woo xam ne ne toog nga fi sëriñ bi malaayika yi yëkkati nañu seen xalima ci bàkkaar duñu la ko bindalati ñi ngi raxas sa xol ba doon fay jóge sa kenn sëriñ bu mat sëriñ la mën nga faa jóge ba am ñaari weer duñ la bindale ci bàkkaar te sa xol day nekk ci beneen béréb boo xam ne ba nga fa demagul melu ni bu fekkee ne diggante boobu daal ngay dellu siwaat mu yëkkati sa xol yéeg ko feneen fu ko gën a kawe kon bari xalaat tam sëriñ bi ci boppam di ko delloo si sa xel aw meloon li mu mel bokk na sax li taxa nangu ñaan nga teewlu sa melow sëriñ ba mu sax ci sa xol nga ñaan suñu borom mu nangu sa ñaan bokk na ci bari hadiyaam joxe hadiya ànd ak pas-pas ak yéene ndax lépp lu mu ca fas dana ko am te hadiya day laabal day am fóot la day fóot xolam fóot ay cëram ci ñaaw ñaaw yi ñaaw seet yi wa tax sëñ bi ne tuubaa li abdi muridin sadiqin lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin ñetteel bi mooy li ci gën a am solo moo di sopp nu nga gën a jëriñoo ci moom mooy na nga ko gën a soppee ndax sëriñ bi sopp gi mu la sopp sopp gi nga ko sopp yow ko ëpp doole ndax bu la dee defal ci sopp gi nga ko sopp yow la lay defaree bu la dee tëbb ci la lay tëbbe bu la dee àggale ci la lay àggalee bu la dee texeel ci la lay texeele bëgg gi nag ak fonk gi ak wormaay gi du yem ci jëmmam ji lépp lu aju ci jëmmam wala mu askanoonteeg jëmmam da nga ko war a wormaal te nga rafetal sa njort ci moom ba lépp lu mu la wax bu fekkonte ne ni nga ko gisee day lu dul dëgg lu weex tàlli bu ko gisee noona na nga rafetal sa njort daawil ko ba mu nekkee neneen yow mooy sa njariñ te mooy tax nga gën cee defaru waaye boo ko seetee ne keneen rek ci la yàqule fekk baax nga rafetal kon sa njort ci moom sëriñ bi ci boppam dafa war a am ay axwaal moom it ay xaal xaal boo xam ne boo ko fekkee sa coono adduna dañ xaal boo xam ne boo ko fekkee kenn dootu la bindal ci bàkkaar xaal boo xam ne boo ko fekkee mu yéege la ak xaal boo xam ne boo ko fekkee mu raxas saxol génne ko ci adduna jëme ko ci suñu borom kooku nag cheikh a koy def cheikh nag ci boppam ay charte la am bokk na ci charte cheikh bu toogee ci garab na xam nu xob ya toll na xam nu reen ya toll bokk na ci charte cheikh fu mu toll jën yee xeex ci géej gi mu mën leen a dàqalee bokk na ci saatu seex bu taalibeem toogoon ca gannaaw jabalu xaas bu mellantaan wala sànq lañ di dox ci gannaaw mu mën koo faxas bokk na ci saatu seex boo àgsee ci moom cër boo moyee mooy nga nekk dax bu sax ca cër ba mu jànloog moom xam xeetu mooy gi lu mu doon xam nañ koy faxase bokk na ci saatu seex mën a xool la ko ma foos ba gis taalibeem bu ñu bind ca way texee di ña mu am sañ-sañu far ko bind ko ca way texee ñi kon bokk na ci charte taali bi ba tey imtisaal al awamir wa ijtinaabil manaahi topp ndigali sëriñ bi ak nu mu mën a dikke ak la ndigal la mën a doon ak la ko ci mën a fekk waxtandiku ay tereem ak nu ak forme bu mu mën a dikkee ak melaw mën a ñëwee daañu wax ne amoon na benn sëriñ boo xam ne dafa daan am ay taalibe ñu ñëw di tërbiyewu mu di leen wàcce am benn waaye bu fa yàgg lool taalibe yu bari ñëw ci kanamam wàcc ci kanamam wàcc ko fa ba ko mbir ma jaaxlee benn bis mu wax ba ci sëriñ ba ne ko man léegi dama jaaxle dama ragal ne aji texee di laa war a doon ndax kat yàgg naa fi te ñu bari ñëw nañ ci sama kanam seen mbir jub ba nga waajoom ba mu waxee mu dal dem rek xalambaay yi nit duw ca biir teen ba ñu daal di koy génne mu dem yoonam mu ne ko waaw lii tax seen xol yee wut dañ laa gën a gëm ndax bi ma ne lay jaay ñàngoor gi jàpp ko boo amoon wóolu tëkk rek ne ko ci du la màtt mukk fekk àggagoo foofa nag mënuma mënaluma la dara yaa fi mën a nekk di tër bi yow ba ba nga koy àgg rek wala nga xat di dem waaye mënuma ci leneen kon sëriñ bi taalibi bi am na wàll ci li ko sëriñ bi defal am na meloo wuy tax sëriñ bi gën koo mënal lam ko bëgg a defal mën ko koo defal am na weer melo yooyu bu ko melo woo it du ca mën dara du mën ci moom dara dana ko yéene waaye du ko mën dafa am benn alim boo xam ne dafa bari woon xam-xam ba doy waar mu bëggoon nag al ismul azimul azam al ismul azimul azam pour màgg la woo xam ne ku dul xutbul xaw wala chaise doo ko am loo ci ñaan suñ boroom mu nangu boo ne woon jant boo ko amoon boo ne woon jant bi bul bouger fii nga nekk jant bi fa lay tag dem boo ko ne woon bul so du so boo fekkoon néew itam nga tudd ko laal ko mu dal di jóg taxaw dundaat ba alim ba demee di laajte ku ñu yaakaar ne am na ko bañ fekk ko Zunnunul Masri mu dem ba fekk Zunnunul Masri toog mu waxtaan ak moom Zunnunul Masri ne ko toogal mu toog muy def Zunnunul Masri laaj bu ñu indi gannaaw moom jàngul laaj bu ñu indi te mu aju ci sharia mu jox ko alim boobu alim boobu tekki laaj ba muy def nag bis bu nekk mu jox ko dërëm jox ko benn super ub ko ne ko demal ci borom loo ca yi jàllale nga fay ko dërëm bi mu jàllale ba ca wàll wa boo demee nga toog fa bu jant bi bëgg a soo dërëm bi nga fayee ko dellu si bis bu ne rek mu def ko ba weer wam fa ñëwee woon dellu si ba nga xam ne sëriñ bi nar na bis bi mu fi ñëwoon bu agsee rek te matal sart yi mu jox ko tur wi ba nga xamee ñaari fan a dox ci tee bis ba agsi seytaane daal koy wax ne ko yow ndab lu woyof lii ñu lay jox nga di ko jàllale sa gannaaw dex nga toujours di ko delloo si te moom dafa mel ne dara nekku ci doo ko seet xanaa kii dafa lay fontoo mu góorgóorlu rek di bëreeg seytaane seytaane itam rek di bëreeg moom ba man ko ba mu toogee ci suuf ubbi aset ba picc ne për naaw mu dal di jaaxle ne man day waay bu ma demee bu ma nee picc ma naaw na mu ne ma yaa ko ubbi te tere woon na ma ne bu ko ubbi mukk nan lay def naa ubaat rek te dem bañ ko wax dara xëy na du ko xam li mu delloo mu ne ko waaw lu ne woon ci super bi mu ne ko mu xam ne xam na li xew mu ne ko super bi ne picc ci ne woon wala lu mel ne picc bopp mu ne ko anamu mu ne ko naanu mu ne ko na nga def ba mu naaw mu ne ko dama ko doon dañ kumpa mu ne ko yéene naa la day tur yi waaye yàlla yéene wule ko ndax yow mënuloo muñ boo ko amee woon bu la nit ñi tooñee nga alag leen te tur woowu dafa màgg ba kenn du ca soppandiku du jëm ci àdduna mbiru àllaaxira rek lañ cey jëfandikoo dal di koy dàq mu dem kon nga xam ne diggante sëriñ ak taalibe li tubaab di wax fidélité maanaam topp ndigal rek bul am sa xalaati bopp mukk bul dañ kumpa mukk bul yàkkamti mukk ndax li muy def am na fu mu tegu te am nay charte charte yi nag feeg matul moom xam na ne la mu bëgg a def du ko mën a def du ko war a def du ko mën bu ko defee nag du ko def mukk yow ci sa bopp nag kon yaa mën a baaxle ci topp ndigalam yaa mën a yàqule ci ñàkk topp ndigalam ci sa melaw bopp ziarat yooyu ñu waxoon ba tey ci nga xam ne dafa takkoo ziarat jegeñ jegeñ lu sëriñ bi maanaam ngir am cofeeram nee ñu ko wax ko suñ ko wax ci naaju qata alhaaji ba ne walaw qalilan limtisaali ma warat min annahu yazidu xubba man yawad bul dañ di yëkkati sa alal di ko jox sëriñ bi di dàq la mu bëgg nga di ko def di watt ne ko la mu bañ di ko faral di ziar tey bari say ñaan ak di ko ñaanal moom it ndax ñaan kenn doy loolu walis ko bu ko defee suñ boroom dana wulli sa xol xar sa xol tàbbal ci ak toppam boobaa sa mbir dana jub kon ziar su tawaddut boobu jaamu yàlla la ndax dañ la ciy bindal ci tuyaaba loo xam ne mënuloo koo xiyaas te mënuloo koo amee neneen ndax sopp sopp lu sëriñ bi sopp sopp lu yàlla la ndax buntu bi yàlla la yàllaa tax ndax dañu ne bala ngay àgg ci yàlla da ngay dem ba mel na yàlla sakkul mel ni mbindeef yàlla doo nga am ci sa xol te bala ngay àgg foofu da nga dem ba nga xam ne day mel ne suñu borom sakkul mel ni mbindeef lu dul Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax sopp gi nga koy sopp ak itteewo gi nga ko itteewo teew gi muy teew ci sa xol bala ngay àgg foofu dana mujj dana fekk nga dem ba nga xam ne dana mel ne mbindeef yëpp dañoo dee ba mu des sa sëriñ nga xam ne moom dong la yàlla sàkk moom dang mu nekk ci sa xol doo xalaat leneen doo bëgg leneen faaw nga jaar ci ñetti jaar-jaar yooyu soo ko àgg ci kon lépp lu lay tax a sopp sëriñ bi moom nga war di jëfe mooy lan li tax nga war koo sopp mooy nga dindi insaaniye bi teg fee indi rawxaaniye bi teg li mu rafet li lépp ngay xalaat foo toll di taawil jëpp jëfam joomul la comprendre wala ju la niru lu dul loolu nga taawil ko bu ko defee loolu dana la takk taqal ci moom ndax sëriñ bu mat sëriñ saa su nekk noo gu nekk dana nemmiku xolu taalibeem juróom-ñaari téeméeri yoon saa su nekk dana nemmiku xolu taalibeem bu nekk juróom-ñaari téeméeri yoon yow ngay yeew sa bopp moom ci taqoog moom nag benn bu fekkee ne gisutoo ko dafa sori ci nga jàpp wirdam wala tur yàlla wu mu la jox wala jëf jum la sant nga di ko jëf di ko ko fàttali ko dana la yeew ci moom ba nga gën a dëgër sàmmante ormaam dana tax itam nga gën a dëgër naka noonu liggéeyal ko boo demee nag ba jàq ba nga xam ne toll nga diggante bu tiis xam ne alkooj sës wala ñàkk lu rëy wala gaañu nga woo ko bu cheikh mateef cheikh dana la wallu waaye lu ndaw luy yàqu wala fakkatal wala yu mel noonu nit ñi naan cheikh du bérébu woo cheikh ndax lu mel noonu jëru ko jërul woote ndax sëriñ si daañu wuyu ku leen woo waaye bëgg nañ ku leen di woo ci lu ko mat foofu la nga fa war a wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni alquran wax alladina ida asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salatu min wa rahmatu ulaika hum muhtaduna sëñ bi wax na ci masaalikul jinaan wuuteeg awliyaa yi ci xet li ak wallu bu ñuy wallu ñi ñu yaakaar ba àgg sax ci sëriñ bi nga xam ne mënulaa wallu kàttanam ci yàlla àggul ci xet li ku ko sori wala keneen waaye bu fekkee ne ki aju ci moom rek moom aju na ci moom bu dëgër te rafetal na njortam suñu borom ci boppam moo koy xet li ci barkeb kooku ndax am na ci awliya yi ñoo xam ne dara du seen liggéey lu dul suñu borom dafa bëgg la xotti sutura am na sëriñ soo xam ne dañuy woote ne sëriñ lañu ba ami taalibe te ajuñu ko ci kaw sëriñ bu mat sëriñ lu dul ñoom seen jëmmi bopp ñu teg leen lu nekk ñooña boo leen woowee te mënuñoo wuyu yëguñu ko sax am na ay awliya yoo xam ne ay wàllu yu ne ci kaw suuf ñooy xett li jaam boobee woote ngir suturaal ka muy woo te rafet njot ci moom yowmal xiyaam rek nag lay feeñ waaye ci adduna fii suñu borom nag suturaal ba daanaka doo xam mënuloo fexe ba xam ak ñàkk a matam bokk na ci li nga xam ne bokk na ci rafet njorti taalibe bi dafa amoon benn sëriñ bu ñu daan soow lool ba mu doy waar mu bari ay taalibe lool ba jéggi dayo am nag benn murid maanaam koo xam ne murid sadiq la moo di fase na adduna jublu àllaaxira di seet nag ku ko mën a àggale ci yàlla mu dégg sëriñ boobu waaxu ba ak si fekk ko mu toog mu yoon moom xamal ko ne yàlla rek ko yëkkati te day tërbiye wu si di tarqiye wu si te ndigalam doo nga lay déglu mu dal di koy jox gopp yebal ko ca toole muy bay te sëriñ bi moom du daara moom nopp jaboot dem ca suñu borom waaye taalib bi moom gëm na mu nga ca naaj wa day liggéey rek guddeeg bëccëg du noppalu benn bis benn nitu yàlla bu doy waar génn àdduna ñu war koo wuutu ñaar ci awtaat yi di waxtaan ne moom day waay diw de jóginu fi dañoo war a tànn nag ci ab daal yi ku ko wuutu ñu ne ah nañu seet xol boo xam ne bii yàlla sax na ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te boolewul yàlla ak dara ñu visité dëkk ba yépp réew mépp taalibe boobee gën caa dëggu taalibe bu nga xam ne sëriñam du dara gën caa dëggu ñu daal di koy remplacer kooku sëriñ ba nga xam ne moom du dara taalibe bi daal di bokk ci ab daal yi kon bokk ci awliyaa yi naka noonu le Muhyiddin Ibn Arabi nettalee ne amoon na moom ci boppam Muhyiddin Ibn Arabi kay Cheikh Abdul Aziz Dabba bi nga xam ne ni mu ngi wëndeelu diwit waaye yàlla ji ko àggale moom it mu dégg jëmm joo xam ne at mu ne benn yoon la cay génn réew yépp dañuy ñëw dajaloo fi moom benn bis lay génn ci at mi bu génnee ñii laaj ñii ñaanlu ñii jébbalu ñii barkeelu ba mu agsee moom benn baat benn kii la ko laaj ne ko man day maa yee jooju ñu doon wax te sëñ Tuubaa ubbi woon ko naar yi inna allaha ma ana suñ boroom a ngi ànd ak jaam yi lan mooy maanaam ànd googu ndax suñ boroom dafa ànd ak nit ñi kon ci kaw suuf wala dafa nekk ca ar ànd ak nit ñi wala ànd gi day ànduk maanaa rek wala nan la demee sëriñ ba ne ko ànd gi day ànduk maanaa rek la da da baax dal di xam ne waa ji day xamul yàlla mu daal di ko fay wëcc demati ba àgg ci beneen sëriñ boo xam ne noonu la siiwee noonu la ko nit ñi dikkale ba mu agsee ba nuyoo moom gis ko mu tàllal ay tànkam jubale penku mu ne kii de nga xam ne benn sart ci sarti orma ci lislaam xamu ko xamul dara du ma tax taxaw moom dal di dem dem ci beneen sëriñ bi mu nuyoo moom bi mu daataan toog gis ko muy taf li mu jëm penku mu daal ne keneen beneen aji ñàkkitee gi na ngi ci ku réere ormay lislaam kii de xamul dara dal di ko fa bàyyi nga gis ne kon ki nga xam ne suñu borom nar na koo gindi xawaayit yi mu am ak mandarga yi mu am ci dal di xàmmee ñi nga xam ne nit yàlla dañu dëgg ak ñi dul nit yàlla nga gis kooku ni mu wëree ba gis ba suñu borom xamal ko ne amul ci jaam ñii ngay wër kenn ku la mën a gindi dellul fa nga dëkkoon mu dellu di def nag tur yàlla wuñ ko jox bu ko yoree tuuti wàcc ko ba benn bis mu génn ci jàkka gis benn góor gu yoru yat toog ci kanam ci keroog si dem su ndaw gu sax ci buntu jàkka ji góor ga woo ko ci mbubam bi mu accès mu ne ko dama la bëgg jox tur yàlla woo xam ne bu ko wàcc mukk nag ma warlu ne doo ko wàcc ma soog la ko jox mu warlu ko ne du ko wàcc mu soog ko jox nee na tur yàlla bu xëyee di ko jàng bis bu nekk la ko war a def balay àggale tàkkusaan ba mu yàgg bu xëyee bu tisbaaree mu àggale ba mu yàgg balay naaj wee tàng mu àggal ba mu yàgg bu xëyee def ko ci suba si noonu la jàppoo ba nekk xutbul xaw nga gis ki nga xam ne dëggoom wóorul na te mu dem ci sëriñ boo xam ne du dara du sëriñ ni ko yàlla àggalee ci wóoruteem nga gis Cheikh Abdul Aziz Dabba mi nga xam ne suñu borom xamal na ko donte jàngul xiyaas boo xam ne ci lay xiyaase nit ñi ba du fa perdre temps ba suñu borom xamal ko ne ko da ngaa war a dellu Seydina Xadir moo ko fekk kër ga mu dëkk ba mu génnee sa jàkka ja moo toog ci si dem ga moo ko jox tur yàlla woo àggale ko ci suñu borom ñu ne kon taalib bi nga xam ne moom lañ tuddee mulaaseq mooy taalib bi tax kook sëriñ bi kooku la yàqule gën a yomb waaye defaru it moom la gën a yomb mooy kii waru la sàggan waru la noppalu waru la nelaw kooku sëriñ bi taxliya ak taxliya la ko war a defal taxliya rek mooy jiitu taxliya waxoon nañ ne gis nañ ci xikkamu Cheikh Ahmadou Bamba ñu nettali woon ne sëriñ ñett la cheikhu taalim sëriñ bi jàngale moom lu leer la waxoon na ñetti charte yi xam-xam bu wér bu aju ci alxuraan ak hadis ak lamiñ wu leer woo xam ne lu mu la wax doo ko werante ak ñaw xel gu mën a xiyaas xam lu nekk fu muy tëdd ak anami dégguwaay yi ak déggti ñaareelu sëriñ si moo doon cheikhu tarbiya waxoon na ne ba tey moom it ñetti chartam charte bu njëkk bi moo doonoon na xam nufuusul aadamiya bakkani doom aadama yi ak seeni xol seeni roo seeni melo seeni xaaj lañu aajowoo la leen di yàq la leen di jariñ xam itam xawaadisul kaw ni xam kaw ni bi adduna bi jaww ji géej ji jéeri ji nit ñi xew-xew yi ñuy xewal lii am la muy def xam itam tasarruf na muy jëfandikoo ba musal na muy jëfandikoo ba aar na muy jëfandikoo ba àggale muy ñett yi mu def seetu tarqiya mooy bi gën a féete kaw nga xam ne kooku itam ñetti sartam boo ko gisee rek sa jëf dal di yokku ndax ak gisam rek daf lay xemmeem loo yàlla daf lay dal di soññ ci jëf ñi nga xam ne noonu la ñenn ci suufee réew dañu wax ne bu ñu jaamoo yàlla ba sonn ba yokkat dañuy dem seeti Muhammad ibn Waasi bu ñu ko see rek dal di sawaraat ayu bés lëmm xam ne kon boo ko gisee rek ak xoolam rek day dal daf lay dal di bëmax ci jaamu yàlla ñaareelu sartam moo di waxtaanam day daf lay jox xaal day yëkkati sa xaal mu gën a kawe nga gën a jege yàlla ñetteelu sartam mooy jaxasoog moom daf lay jox ay leer day leeral sa xol ba nga génn ci mu lënt kon taalibe yi ñoom ci seen bopp li war ci ñoom mooy soppante soppante ak warloonte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al muslimun tatakaafu udimaahum wa yas'a bi zimmatim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum rawatina muriduuna yi ragal yàlla ragal bu sax sopp yàlla sopp yonent bi sopp sëriñ bi sopp gu mat boole yaakaar ak ragal te lenn bañ cee not boole muñ ak di tuub foo toll ak dëggu ci say wax ak say jëf amug wóolu boole zikr ak sikr zikr ak sikr suñu borom daf ko digle ci alquran alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ndax wéet mooy li mun la ñàkk ci doomu aadama bu nekk ndax wéet ci la muhaasaba nekk xisaab sa bopp ci la itam xalaat sët mucc xalaat li nga yàqule te war koo defar ak nan nga ko war a defee xalaat ni nga sàggane ak ñi la gën a farlu ak na nga leen di war a royee zikrullahi nag mooy li nga xam ne ba tey moo lay sàggaleeg seytaane turu yàlla day bëreeg seytaane seytaane ab xaj la xol bi mooy néeg bi seytaane bëgg a dugg xaj bi bëgg a dugg lan moo moo ko soxlaal ci néeg bi bu ci lu mu lekk nekkee yàpp yàpp mooy lan mooy jikko yi nga xam ne jikko yu bon la melo yu bon bu fekkee ne li ñu wax ne tur yàlla day dàq seytaane bu fekkente ne sa xol bi jikko yu bon a ngi ci nga tudd yàlla tudd yàlla waxtu ngay tudd yàlla seytaane dana daw waaye day itam toog fee di xool yàpp wi ci biir néeg bi te mooy jikko yu bon yooyu ci sa xol waxtu woo bàyyee tudd yàlla gi rek mu ñëw dugg bu fekkee nag def nga tarbiyatu nafsi war ruux ba nga xam ne jikko yu bon yooyu nekkul ci yow seytaane amu fa soxla ndax xaj bu xiif bi bu fi gisul dara lu mu lekk soxlawu ko boo tuddee yàlla day daw wuyu ba faaw nag dem wuti feneen fu mu faray ji loolu mooy maanaam tur yàlla moo mën seytaane tur yàlla mën seytaane waaye na fekk ne seytaane ab xaj la xaj bi na fekk ne néeg bi nga koy tere te mooy sa xol yàpp nekku ci mooy jikko ju bon kañaan soxar bëgg daraja bëgg àdduna bëgg tayeel bëgg nelaw bëgg lekk bëgg gis leen ma yépp mu ngi ci jikko yi nga xam ne xontub seytaane la seen mu ngi ci xolum nit ki buy tudd yàlla it seytaane dana daf ko daan dayeet ba fee mu taxaw di ko xool waxtu wu noppee rek mu ne saraax ni waaye bu fekkee ne yooyu yëpp dañ na du day def maqama yàq ñi wax boo xamee ne iraada muy ci yow maanaam nee nga murit nga bul xeeb kenn bul xeeb lenn bul xeeb kenn nit bul xeeb lenn ci jëf ak ci jëmm jëf ju baax bu ci xeeb lenn toog sax ba mu yàgg nga fàttali ko suñu borom ne astaghfirullah al azim wala la ilaha illallah wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gàtt na yomb na ci lamiñ waaye bu ëllëgee fa fa xéewal jafe bu ñu la ko joxee doo ko xeeb waaye na mu gën a bare la gëne waaye lu mu néew néew bu ko xeeb def ko naka noonu jàpp julli ñaari rakkaa rek wala tari aw saar ci alquran wala ay salaatu ala nabi lu mu yomb yomb lu mu gàtt gàtt lu mu néew néew bu ko xeeb am na njëriñ yaa ko gañee ko ko deful ndax nee ñu faral di wax lépp lu la waay gañee ba mu koy def yaa ngi janloog moom mu di ko def nga toog yow bañ koo jëf kon ba tey loolu mooy dàq sàggan dañ ne nit moom bu ca xeeb kenn jëf ju baax bu ca xeeb kenn jëf ju bon bu ca xeeb kenn waxoon Sëñ Tuubaa waxee ne li ma waxoon léegi ci yaa saxi kun istixaalim ku laax yaa in tax ju annaka zu fadin ala ahadin bul xeeb ne bul foog ne yaa gën dara waxkat yi daañu nekk li ne Seydina Jibril alayhi salaam suñu borom mos na ko ne di ko nattu demal ca kaw suuf adduna nga seetal ma fa loo xam ne yi nii yaa ko gën yaa ko féete ko nga indil ma ko Seydina Jibril wër dindi suuf yépp gisul dara lu mën a indi mu des benn xaj bu dee mu am xel ñaar ci na ko yóbbu ndax lu dee la ndax xaj la duma ko yóbbu ndax xamu nu ma mel fa yàlla mu dem ci ko fa bi mu dikkee suñu borom dellu ko gëddaat dama laa laajoon loo xam ne li yaa ko gën ci àdduna indi woo indiloo ma dara lu dul loxoy neen mu delluwaat wër wër gisul lenn lu dul xaj bu dee ba mu fab xaj bu dee ba dikk ba ci asamaana ndikk si xelam dalul moo ci ko dellu mu ne ko loo indi mu ne ko dara mu ne ko dellul waay delluwaat wër wër gisul dara dul xaj bu dee bi mu dikk fëkkati xaj bu dee bi dem ba ca ñaareelu asamaan yi xelam dalul mu wàcc ko ba ca ñetteelu yoon ba dikkee nag wër wër gisul dara mu dellu ni man gisuma dara mu ne ko xaj bu dee boobee nga faboon boo ko indi woon ngir foog ne yaa ko gën danaa la delloo ba doo doon dara kon suñu borom tabaraka wa taala dafa mel ne nit ku nekk ñaari buum la ñu yeew ci yow ñaari malaayika yor ko waxtu woo xamee ne toraxlu nga wàcc nga sa bopp malaayika ma ca kaw yëkkati la waxtu woo xamee ne rëy rëy lu nga malaayika mi ci suuf xëcc nga daanu ñetteel la moo tax aji rëy rëy lu nee ñu yomal xiyaam dañ koy soppi mellantaan muy daagu ci suuf nit ñi di ko dëggaate ndax rëy rëy rëy gi mu wane woon toraxlu nag kon si Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu nee na dama dikk fekk bunti yàlla yépp gaa yi yàlla yi salloo ca ba mu xat ma fekk buntu torax lu dong ak woyof mu féex ci laa jaar baa bi ci sama borom naka noonu bari muslu auzu billahi min ashaytan rajim ndax iblis bañu lu dul loolu ragalu lu dul loolu dafa mel ne safara la mu koy lakk na nga ko gën a bari le rek da la iblis gën a yabadee li ci gën a rawati rek moom lañ tàmbalee woon dañ ciy jaar moo di fàttaliku dee li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bàyyi naa fi ñaari waarekat waarekat buy wax ak waarekat bu ne cell waarekat buy wax bi mooy alquran waarekat bi noppi mooy dee fàttaliku dee xamuloo kañ lay ñëw te du ñëw lu dul ci bette fàttaliku ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na ko bataay yi digle na ko lu bari Sëñ Tuubaa digle na ko bataay yi lu baree bari la ko digle adduna perte nga li seytaane yi def fee bari lool waaye murid bi nga xam ne dëggu la ci xolam moom ba muy soog ak si di jébbalu te muy dëgg di dëgg ci moom dañ koy yéegal ci shahid waxoon naa shahid te bu may soog a tàmbali ne la mooy nit koo xam ne bu deexee amul xisaab ndax adduna médd la moom xeeñu ci dara laalu ci dara takku ci dara ni ma ko waxee woon ca ndax mu waxtu wu génnee këram ne mu ngi jaare ji mu ngi jihaari nga xam ne dafa fas yéenee dee gé xolam lam bàyyi ci kër ga lépp génn na ci amatul dara lu ndax kuy dee yi ku ku nar a dee yi moom amatul dara looy bëgg ci àdduna te lépp loo bëgg te muy ci mbiri àdduna yi kese gaaf la ci waxtu wooy dee loola ngay gën a bañ waxtu wu dee taxawee waxtu wu sukuraat ñëwee ndax lu tax day dox sa digg ak yàlla kiiraay na ndax doomu aadama bi waxtu wuy dee day jànnoog film bi fa mu juddoo ba fii muy dee li mu ci jëf lépp ak fi mu ci jaar lépp lépp loo xam ne lii ba tey mu ngi nekk ak bëgg ci xolam li ñuy wax wala fi wax siisu xol bi daf cay tàq ñu di ko retti di ko xëy di ko fàq ñu metti ba dee ni nga xam ne ku am ñetti dërëm ñu sàcc ko fi am fukki junni ñu sàcc ko ni borom fukki ji ni ñuy sàcc ni muy gën a mettit loo ki am ñetti dërëm naka noonu ki nga xam ne xolam noonu la ñàkk wékkoo li mu ci àdduna noonu la gën a woyefe mbir ñu waxoon ne mbirum dee secret bu rëy fi nekk di lënd ndax am bu nangoo dem ndax di ñeewante ñooñu mu fi bàyyi loolu itam dana mettil sukuraat ñetteel bi ciy mettil sukuraat nit ki suñu borom dana ko jox daraja ju kawe yéene ko ko waaye daf ko war a liggéey fi mu toll nag xaaju cay àgg maqaam ni mu toll xaajoo àgg ci maqaam bu ko suñu borom nga xam ne moom la war a dekkeale yow man xiyam ñu di ko xisaab di ko nattu loo xam ne lii dana fay dana tax mu àgg ca maqaama mooma ñu di ko mettital ci waxtu bi nga xam ne ruuxam ngi génn ci yaramam ñu di ko ci mettital lu jar yéegal googee ñu koy yéege ci kaw daraja yi kaw ba tey kon ñu dal di xam ne secret yàlla nit ki mënu koo xam diw seede naa ba muy dee nii la def wala seede naa ba muy dee nii la mele mu ne si caa xamee lenn borom basira ko mën a xam borom basira waxuma nit ki bi muy dee ndax bu muy dee dana gis moom borom basira dana janloog malaayika yi ñëwoon di rocc ci ruugi ak malaayika yi ko seede dana janloog itam iblis ni mu ñëwee am niñ ko dàqe ndax iblis foofu nga xam ne ruugi commencé naa génne ci baaraami tànk yi nit ki nee ñu dana mar mar woo xam ne buñ ko wëggee woon jéeg ji ci àdduna yëpp du màndi boobaa iblis dana yor ay weeri ndox yu sedd sedd sedd teg ko ci wetu bakkanam def ñaari seytaane kii mel ne ndeyam kii mel ne baayam moom mii bëgg a dee naan ko sama doom neel dee naa ci diine yahood wala diine nasaraan kii naan ko neel dee naa ci diine yahood kii naan ko neel dee naa ci diine nasaraan man naan dal la nga naan ndax mar yu metti na ci yow te diine yi ma lay wax mooy ngën ci diine yi bu fekkee ne nit ku yàlla yërëm la bu malaayika yërëmande yi accès seytaan yooyu ndaw bu fekkee ne du noona nag lu bon la am borom basira bi bu toogee dana jàlloog ñooñu ñëpp am ñuy tax ndax borom basira day xoole leeru yàlla leeru yàlla nag dara mënu koo fatt lépp lay gis borom basira bi dana jàlloog yow di gis sa siddiit yi yi ciy waral texe bi ak yi ciy waral texe yi ciy waral texe bi lana koy saafara ak yi ciy waral texe lana koy lana koy dibbali dana jàlloo xar kanamu nit ki xam kii kanam guy leer la bis ba nit ñay daje wala kanam guy lëndëm la di xam mujjub kii noonub yàlla la wala soppib yàlla mu war di gën a xalaat moo di dee ndax dee ci fiiroo bi rote rek la gën a amee lu ñuy wax danger ndax lu tax boo gisee borom xam-xam yi dëgg dëgg dëgg ragal firi alquran moo di ne nit ki ci waxtu woowu roo xam di rot dootu am kumpa day mel ni bëti kese kese kese la dara dootu ko umb ci àdduna lépp lay jàllool li muy njëkk a gis mooy ay jëfam ay jëfam day njëkk a gis bu ko gisee tawxiidam ci boppam day dal di taxaw ci kanamam leer nañ mu gis lu ca manqué mu mel ne jëmmi nit bu fekkee ne bopp ci manqué wala loxo wala tànk wala bakkan ci manqué wala nopp mu xam ne tawxiidam matul bu fekkente ne ni mu fase woon ci yàlla ni mu fase woon ci malaayika yi ni mu fase woon ci yonante yi ni mu fase woon ci dekk ni mu fase woon ci yëpp yi nga xam ne tawxiid digle na ko am na ci pas-pas yoo xam ne yu dëng la bokkul ak nam melo mu dal di jàlloog melaw manqué woowu mu xam ne tawxiidam manqué na mu dal di ñaaw njort ci boppam ruuxam rot dajanteeg ñaaw njort boobu dañuy ñaaw njort ci moom moo tax boo firee wax yàlla ni nga ko firee bokkul ak na ko yàlla nammee booy dee janloog ndax loolu ci tawxiid la bokk nga janloog ni nga waxal yàlla lu mu waxul ni nga fase ci sa xol sa digg ak yàlla loo xam ne demewul noonu nga gis manque googu mu naqari la ñaaw njort dugg ci yow ñaaw njort googu nga deewaale ko mandarga la ci mandarga yi yi nga xam ne kenn sopp ko loolu moo tax sëriñ su mag si xam dëgg dëgg te xam te xam ragal firi alquran loolu tax ñu ragal yenn yu bari ci tawxiid moo tax dañ naan kama yaliqu bi kon li ma waxoon ne war na ci murid yi ñu soppante kenn ku nekk di sa bopp di sa moroom sa moroom di yow moom la Cheikh Ahmadou Bamba ci yi war ci lawaajib yi war ci suuf wa rafqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maa alwafaai bi sidqin fi uxuwaati bu fekkee ne mbooloo la ñu li wala fi wax naan rëbb ca coow la boo dee yow kenn ku baax yow kenn nga dëkk ak fanweeri nit ñu bon lu baax lu tuuti muy bëreeg lu bon lu bari lu bon bi daf koy not bu dee fukki nit ñu baax lool di jaxasoo fukki nit ñu bon lool fekkee ne amu ci kenn koo xam ne baaxam nga dem na ba ëpp kàttan fukki mbon mbon yooyu ndam du dem ndam du dikk moo tax lu baax fa mu baree la gën a yombe boo dee nit ku baax na ngay fréquenter milieu yu baax milieu yi gën ci milieu yi mooy milieu boo xam ne doo fàtte yàlla waaye milieu yi nga xam ne boo ca nekkee sa xel dem ci yàlla mukk ni ki jotaayu poy yi sa xel dem ci yàlla mukk bokk na ci mooy yi gën a bon waaye moo tax ruf ka am solo mbooloo mi nga nekk di mbooloo yi nit ñu baax rek nga xam ne ñoom ñëpp kenn du wax loo xam ne daf lay wàcce lu ñu wax rek daf lay yéeg li ñuy li ñuy gis ak ñi ñi ngay gis yi ñuy jëfe ak li ñuy nga xam ne moom moo mooy seen melo toujours daf lay fàtteloo la ca des geneen wàll ga waxtu woo xamee ne al judul ilaahi yi ngi ñëw day fekk nga nekk mustaid sa ndab dal di fees mooy fatxu gi nga xam ne day bette day dal di ñëw ñu naan diw kañ la ko di dikkal ndax nit ki sax nga ba mën na daan taq di taq ba benn bis mu set rek ci benn gendiku bët dajanteeg taw bi di sottiku mu fees mu dal di raw ña ca des kon taalibi war na fu mu toll di gën a góorgóorlu bu war nay xeram di dem ci sëriñ bi ci boppam li mu daj rawatina fukki at ak juróom benn yooyu nga xam ne mooy bi jiitu géej gi ak bi mu nekkee ci géej gi bi mu fi jógee bi mu demee gànnaar bi mu dellu si Ceyeen ba bi muy ñëw njaareem ndax bokk na ci charte ndam li di set toujours ay ji charte ne li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ay jooju surtout Uhud la wàccu mu nga xamee ne natt bu mag dal na jullit ñi suñu borom di leen tàmmal muñ di leen tàmmal xuus ci njàqare ak ci naqar ak ci ñu bari ci ñoom dee ak ci ay jam-jam yu metti teewul ñu di leen santati war a jógati dellu ci beneen liggéey bu mel ne bi ñu gaañoo woon gaañ bi bu mel ne bi ñu jàqe woon ba tiit bu mel ne bi nga xam ne ci la ñu bari ci ñoom deexee ngir wulli seen xol ba nga xam ne dara dootu leen tiital ci àdduna dootuñu ñàkk dara ba mu naqari leen dootuñu am dara ba mu bégloo leen wow loolu mooy melo yi nga xam ne moom la mu wax mel dëgg mooy buñ ko joxoon àdduna ak li ci biiram itam ak bañ ko xañee ba amul lu mu lekk amul lu mu naan amul lu mu sol ñu yem képp ci moom mais ñu Cheikh Ahmadou Bamba nee na gàmmu ga nga xamee ne fekkoon na ko gabo amul lu mu terale guddi yonent bi lu mu benn ganaar mu rendi ko di seet benn jullit bu mu ko jox gisu ko ba mu dem ca quartier ga fekk fa di laajte ba gis soldaar bu tudd Muhammadu mu jox ko ko ak gàmmu gi mu gàmmuwaat ci njaayam ñu lay nangami nag xàmmewul ñaari gàmmu yooyu mooy li koy laa taasoo ala ma fatakum wala tafraxu bima atakum ban waxtu war a jot dama defe ne ngir waxtaan yu gën a neex mën naa dog si exposé bi laaj yi ñu dem ci bay bay deux heures bopp bay mu ne répété mu ne laaye ja Moussa labaloon firaw na nooxun labal bañam ya fat ci mbeex ma am na am na beneen sutura mu ci teg bi ne Cheikh Bamba ne moo leen joxoon mbootam ya Moussa moo la baloon Firawna yàlla la baloon Firawna ci jëfi Moussa li nga xam ne ne Moussa Firawna topp na ko ak armeen bépp gën leen a bari fukki yoon ndax ñoom ne inna haawlaa'i la shirzimatun qaliiluna xeeb nañ leen bari ñu néew la ñu ñoo xam ne jaruñu woon dara topp leen ba sóob leen ci géej gi bu ñu wàññi koo dajeeg Firawna ak ci soldaaram ñu mën leen a lekk ci saa si bu ñu waa jubale seen kanam it dajoo géej gi te mënuñu ndox amuñu gaal ñu ne ah ñun dey Moussa ñun kat ñii daañu nu jot daañu nu jàpp de mu ne kalla inna ma'i rabbi sayahdini déedéet suñu borom laa àndal te dana ma teg ci yoon nee ñu foofa mu am fa ñëpp yox yoxee lañ ko yéegale ci ulul azmi suñu borom nag moo ko diggal moo ko diggal an adrib bi asaakal bahra fab nga ko fabal saw yet nga dóor ko ci géej gi booba xamul lu cay mujj xamul lu tax suñu borom sant ko mu fab yet wa dóor ko ci gi mu def yoonam ñaar géej gi xar ko ñi ma àndaloon soobu ba jàll firaw naa ci nitam ñëwoon na ca bax soobu ci biir borom bi ñett ba nga xam ne ña mujj ca gannaaw dugg nañ ci biir ndox mi te ña jiitu génnaguñu ndox mi daal di dellu nam meloon maasale leen loolu ci yàlla nooxu ku nekk xam ne moom itam xabaaram tuufaan ba mu ne rabbi laa tadar ala al ardi min al kafirina dayyaanan innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara mu seetee biir jigéen ñi ak góor ñi ba xam ne kenn du judd ci nit ñooñu kuy kuy tuub mu ñaan suñu borom ne ko faral ñii gaal ga mu yettoon suñu borom digaloon ko ko su waxatee garab ga ba mat mu yett ko ña dugg ñoo mucc ànd ak moom bu fekkee ne sëñ Tuubaa dafa ne Muusaa na mu labale woon Firawna ci bax waxal joom ñoo xam ci àdduna lu dul ña àndoon ak moom dugg ca gaal ga ak kam ko ñetteele keneen ci yonant yi la ku defoon lu mel noonu ne moom moo leen joxoon ay bóotam ay bóotam la leen joxoon ca bóot yooyu mu leen jox la ñu defee xarbaax yooyu xarbaax yooyu moom la ñu tuddee mu'jiza mu'jiza am na charte mu ngi ci mawahibul quddus ñi ko def it ndigalal yàlla lañ ko defee suñu borom lañ ko digal ñu ne nag ndigalal yàlla la waaye mbóot mi ñu ko defee ndax ñoom Moussa dóor géej gi rek la ci am yàllaa xotti ndox mi noox itam yéeg ci gaalam rek la ci am suñu borom a ballal ndox mi moo labal ñu si def mbóot ma ci bopp nag la ñuy wax mbóot ma ne Cheikh Ahmadou Bamba ne moo joxoon mbóot mi Moussa moo joxoon noox mbóot mi moo joxoon keneen ki ci def ci lu tax mu wax ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sayyidul awwalina wal axirina mooy sangub yonent yépp yërmande la ci mbindeef mu ñu bind nga yéefar ngay jullit Muhammad yërmande la ci yow bi mu fi jógee dafa bàyyil xeetam bi secret boo xam ne moo yor àdduna suñu borom daf koo teral teral boo xam ne ci la bàyyee alag aw xeet ni mu daan alage ay aad ak ci samud ak ñi demee ne ñoom ci yërmande suñu borom ak baaxam ak teddug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li ko suñu borom may mu sàkk ay wuutaatam ci kaw suuf ñoo xam ne ñooy taxaw taxawaayam ñooy toog fa mu toogoon siis bi mu toogoon di àtte jamono la ñuy toog koo ci xam ne kii doon nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ndax ñu ko doon ci zahir rek dañu amee xilaafa gi ci zahir waaye duñu am baatin ba ñi ko doon ci baatin rek dañu amee baatin bu dis gan waaye nag ku leen weddi du la wàññi dara waaye ki ko doon zahir ak baatin suñu borom daf koy waxloo ndax day buntu bu yërmande yàlla ci kaw suuf bu nëbbee sañu la nëbb boppam bu nëbbee boppam bu yomal xeyaamee ñi texewul buñ laayoo moom yey ko ndax dañ naan ko yaa nëbboon sa bopp kooku nag war na mu wax ci moom ci martaba bi mu taxawee mooy wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw taxawaayu Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam taxaw gi mu taxaw taxawaayu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne zimaamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikil qaada bil hadid nos bindeef yépp fa suñu borom mi ngi ko teg ci sama loxo te ma martaba boobu mu waxe loolu la waxe ne ñooñu ñëpp ndax dafa seey ci yonent bi ba jeex ci moom muy moom muy moom loolu moo tax fu yonent ba jaaroon mu jaar ko fu mu tegoon tànkam mu teg fa tànkam ci na mu yelle ci moom loolu moo waral mu wax loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek a ko sañ a wax mu di ne sekkarey sekkarey mbóotam moo xotti géej ga Muusaa dóoroon ceet wa moo ballal itam ndoxum noox ma ca tuufaan ci martal boobu la ko wax alhamdulilah taala anam waaw jërëjëf sëñ bi ci laaj boobu am na kuy wax ni dafa dégg ñu wax ni foofu ñu ne fi la ñu labal firaw na géej amul ko ak it ñu wax ni firaw na boobu boo toppee soir réewul woon ci ci ci yooyu jamono daal. waaw kay
waaw déwul gi ci yooyu jamono ab wuute la ndax boo seetee sax diggante yahoot yi ak nasaraan yi ni ñu ko jàppee ñoom seen bopp am nañ ci wuute ndax am na ñoo xam ne firaw na ci boppam. dafa dellu siwaat dellu siwaat na këram xare ba dee moom ci boppam mu dellu si ñooñu dañuy wax ne Firawna moo mujj a dugg ñi nga xam ne ci lislaam dañoo amee xalaat boobu fal yamanu najjika bi badanika dañ koy yéegal foofu ñi nga xam ne nag nangu nañ it ne dañu ne moom Firawna lab na ca ba dellu siwul fal yamanu najjika bi badanika ni ñu ko tekkee moo di fira faraay na yooyu ñu sulli woon te def leen moom yi nekk ca misra ñi nga xam ne boo ba léegi buñ ko suulul naa ne ñu saadaat suul woon na ko ñu ne suuluñu ko ñu ne suul nañ leen boo demee fekk leen fa muy maanaam fale mënu na jik bi benn ni que li defoon li mën xal fak ayat nga xam ne boo demee da ngay jànloog Firawna bi nga xam ne moo daje woon ak Muusa mu nekk ci keesu weer gi nga jànloog moom ni mu meloon ni mu toll woon di ko gàtt ko tuuti nga gis tànk bi ni mu sooxee yëpp kon ab wuute la boo xam ne ci diggante olomaaw yi ci ni ñu déggee aaya ji ak ba alxuraan ñëwagul ñi nga xam ne ci tawreet ak linjiil lañ sukkandikoo woon nañu wuutee ci ne Firawna deewul labul deewul ca lab ga mujj na génn mujj dellu si na ci këram ni nga xam ne noonu la ñu wuutee ci ajjana ja nga xam ne moom la aadama nekkoon te ñu jëlee ko ca ab tool la bu newoon ci àddina wala mooy ajjana jëñ digal way ragal yàlla ñuy ëllëg noonu ñu ci amee wuute ci ñoom nasraan yi ak yawut yi ba tey noonu la ñu amee wuute ci diggante Muusa Firawna ndax dee na ca lapp ga wala deewul waaye xalaat bi nga xam ne mooy li ñi gën a am solo ci ahlu sunnati ci lislaam jàpp moo di Firawna lapp na dee na falamma adrak wala amtu qaala amtu an laa ilaha illa allah bi anna ana muslimina alaana waqad afit fa bokk min al muslimina fale mënu na jig ba danika nag ñoom xam nga firawna yi dañ leen a mujj sulli bi ko alxuraan di wax xamuñu woon ndax fira faraina yi waaw wàññi baax na de na ko kenn xoolatu faraina yi dañ leen a suul wala dee nañu wala fuñ seey nañu wala déet ñu ba bi ñu leen di exhumé bi ñu leen di sulli di leen génne ba di leen def ay mumi beneen bu njëkk bi ni mu waxoon ba tey ci firaw ndax lab na wala déet am na beneen
dafa wax ne dafa am ñu ne lëpp fi mu nekkoon ci ci wax ko lañ ko lab ci itam waaw loolu itam gis nga ay wax la man gis naa ci ulama yu ñoo xam ne dañoo weddi sax ne labu kenn amul lab gi am na sax dañu waaw dañu lab gi am na waaye bi ca génni Muusa dafa dóoroon yetam ca géej ga mu xar loolu itam li leen ci yóbbu dañoo bëgg a nirale luñ xamoon ci leneen luñ xamul lu ñu tubaab yi wax ci histoire histoire France le passage du Rhin ni ko Voltaire expliqué nga xam ne ab xeex ab xare bu Louis XIV àndaloon am ca ñoo xam ne ci région boobu Rhin nekk muy dex gu mag gu rëy googu la ñu dëkkoon ñu xam li ñuy wax al maddu al jism mooy flux et reflux ci français waxtu nga xam ne géej dex gi day fees dell ba nga xam ne digg bi day lëgg ba nga xam ne kenn mënu koo jàll ci lu dul gaal ak jamono bi nga xam ne ndox mu day wowu wàññi ko ba nga xam ne nit mën na koo xuus presque ba jàll ñu defoon kéemaan ni nga xam ne noonu la ñu jàppante woon ba xuus géej gi dex googu ak ni mu xóote ñu dem ba ci histoire ci gëstu yi ñu dem ba gis ne booba du woon kéemtaan genn kéemtaan li mu doonoon moo doon rek ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Louis XIV te fi am ñoo xam ne foofu lañu dëkkoon xam nañ jamono bi nga xam ne ndox mi day day day ñiis day wàññiku ba nga xam ne daañu ko mën a buñ jàppante daañu ko mën a xuus ba jàll loolu rek la ñuy def ñi ci def nag xamuñ woon loolu ba ñu dikkee fekk dex gi feesaat fees mi ñëw ak mbënd mi ñu daal di dugg lab ñu daal di nag transposé nag xew-xew boobu ci bahru Kalzum daal di ne Moussa itam ñi mu àndaloon dañoo dëkkoon foofu rek jamono yi muy agsi du dugg foofu boo fekk na ndox mi wobu ba nga xam ne mënatu la wan na nit ñu xuus jàll bi waa Firawna di ànd di ñëw nag ñoom nga xam ne ñu ngi jóge Misra bi ñuy dugg si ñoom xamuñu woon phénomène boobu ñu xuus ndox mi labal leen ndax dañoo gis ne ñu ànd ak Moussa jàll nañu ñu jàpp ne ñoom mën nañoo xuus ndax xóotul ñu dugg ci daal di toj loolu am na sax ndem si yàlla si ku bari woon xam-xam la noonu la la ko gisee moom waaye dafa niralee passage durée rek ah passage Moussa waaye du benn passage Moussa moom alxuraan moo ko nettali te alxuraan moom lu mu wax lu wóor la léegi kon ñi dul jullit te nga xam ne itam dañuy xiyaas rek te mënuñoo gëm miracle maanaam mënuñoo gëm mu'jiza mën nañoo xiyaas ne ni nga xam ne noonu la Louis XIV ci xareem jàlle woon Rhin noonu la Moussa jàlle Bahru Kulzum waaye nag ñi nga xam ne jullit lañu mënuñu gëm loolu te it loolu mënuñu ci am yenn preuve hypothèse la boo xam ne rek dara saxalu ko mënuñu ko expérimenter mënuñu ko démontrer kon loolu xalaat la boo xam ne mënu la sax.
waaw sëñ bi dafa am kuy laajte lu taxale ak addiya ak soda
sadaka julit bu lot lañ koy jox hadiya ki nga yaakaar ngëneelam nga ko mën a jox hadiya moo ëpp doole sarax ni ki ñuy sarax ni ko ki ñuy jox hadiya ëppee doole hadiya nitu yàlla lañ koy jox koo xam ne dafa am ngërëmal yàlla wala mu laal ci ngërëmal yàlla wala mu taq ci ko am ngërëmal yàlla ki am ngërëmal yàlla amee ci moom ngërëmal yàlla moo gën a yomb nga sos sa ngërëmal yàlla di ko wut ni nga xam ne ci bay ba góob ba bojj ba soq ba foof ba wal ba mooñ ba tay ba yekk ba siim cereem bay lekk nga ñaan ko cereem mu tibb jox la moo gën a yomb nga dem fekk kay ruuj nga taxaw ko nga wala nga ànd moom di ruuj di ji di bay bay góob ba ma ngay togg noonu la ñuy wutee fa minhu sirru lfuaadi fahaama bihi sirru fi kulli waadi aji nam jëm ci yàlla koo xam ne dafa wacc léppam jëm ci yàlla soobu ci yoonu yàlla di def li ñuy wax taxliya mooy wéetal sa xol génn ca bépp ayib boo xam ne dana fanq leer yàlla ba sa xol set set gu sell xol ci boppam bu ne dafa am sirru xol bu ne am na sakare si boppam sakare boobee amati sakare maanaam sirru am na sirru sirri am sirru sirri sirri am xol boo xam ne sell na ba sell sirroom day jóg taxaw maanaam mbóotam day jóg taxaw mu ne ba murit boo xam ne xolam dafa set wecc ba sell ba nga xam ne sirrub xolam dafa jóg ëpp ko doole ba leer ji gën ko ba xamatul fu mu nekk mu yan njëxam di dem di fu nekk mu jaar fa xur wu ne mu dugg fa di lëm bi rek di mëlmëli te xamul fu mu jëm mu ne lan waaw fa fi ay waadin saa lam yajid lahu maljaan xayra mawla ibad bi nga xamee ne leer googu ëpp na ko doole ba mu jóg di dox sawq bi maanaam namm gi mu namm yàlla mel nit koo xam ne da ngaa bàyyi réew moo xam ne sa ndey ak sa baay ak say xarit ak say doom ak sa mbokk yépp ak la nga bëggoon lépp nga fa ñu fab la yóbbu la ci réew mu sori nga soreeg loolu ba toog fa ay at ba namm ko ba xamatoo fu mu nekk ngay di ko wër fu ne nga dugg fa di ko wër loo gis jortoo ko loola boo àggee du doon dara du la saf ndoxum ñuul ngay walbatiku nga dem ba dellu si nag àgg ci fa nga xam ne mooy réew ba nga xam ne moom nga doon wut la nga bëgg lépp fa la nekk mooy lahumal jaan xeyru mawlal ibad mawlal ibad rek mooy réewam moomu nga xam ne ca la nam safa bil wafa safa bil wafa dafa matal li mu mën a réewante yàlla ba yàlla sellal xolam ba loolu setal ko wecc ba mu set wafa bi safa sell ci xolam selli tax na mu àttan mbóot mi ngi ko dénk ba matal ko jox ko xaqam nam mate wanuuru safa leeruk sell googu nga xam ne mooy mbóotum xol ma mooy làmpu xol ba itam alaat na mën a maakaana la am xataa urida ba moom ci boppam ñu namm ko muy mu nekkatul murid muraat la léegi murid mooy ki namm ci yàlla jëm ci yàlla nga xam ne yow yaay wuti yàlla muraat mooy ki nga xam ne yàlla ci boppam moo la namm moo la moo la wutsil boppam moo la tànnal boppam moo la xëccal boppam yóbbu la fa boppam moo yore sa lépp moo lay aar moo lay garde moo lay lekkal moo lay naanal moo lay berne moo lay joxal lépp mu ne kii namm na li yàlla li li li am nga xam ne yàllaa ko namm maanaam amatul iraadaam jeex na amatul bëgg-bëgg amatul namm-namm li lu li yàlla namm namm-nammam seey na ci namm-nammu yàlla ba yàlla ci boppam namm ko mooy ki nga xam ne dañu ne kii wàllu yi ñett la ku njëkk ki mooy lu neex yàlla neex na ko ñaare bi mooy lu ko neex rek neex na yàlla ñetteel bi mooy lu ko neex neex na yàlla lu neex yàlla neex na ko mooy kii leen gën a àgg mooy kii moo xatta urida fa tuuba lahu min muridin muraad mu ne léegi kooku texe ñeel na kooku ndax mu murid la muraad la maanaam ku bëgg yàlla la yàlla bëgg na ko mooy ñaar ñëpp mooy lu lu mu lu ko neex neex na yàlla lu lu neex yàlla it neex na ko ndax mën na nit mën na wala yu mën na lu neex yàlla neex na ko waaye moom la ko neex neexul yàlla wala li ko neex neexul yàlla te moom lu ko neex neex na yàlla moom mu boole ñaar yëpp di murid di muraad lu ko neex neex na yàlla lu neex yàlla neex na ko mooy fatu baalahu min murid di muraad mu ne waaw uridu sarha waaw leen te loolu maanaam lan bayt yooyu loolu la tekki mooy sëñ bi xaadimu rasul xaadimu rasul lu mu tudd ko nekk nañ ci ay nekk li bu ci nekk wéere nañ ko ba ci ku doy bi ci gën a gàttal dafa ne suñu borom dafa yër xol yépp fekk xolam gën cee sopp yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu jagleel ko mu jagleel ko ko beneen bi nee na dafa ñëw seet yooli jaamukati yàlla yi xej yàlla yépp gën cee xemem yoolu ahlul badrin ñi xare woon badar mu laaj suñ borom lii na may def ba am ko mu ne ko wéy na ñi ma ko jagleeloon def nañ ko ba wéy julli mënatu la koo may koor mënatu la koo may sarxe mënatu la koo may jàng mënatu la koo may dara mënatu la koo may nee na ba ma won ko gannaaw génne ci sama xel mu ne waaye nag danaa ko jaay mu ne ndax sañ naa xam li ñu koy jaayee sañ naa xam njëg gi mu ne ko waaw waaw waaye sa morom yu bari ku fi ñëw de ci xaj yi laaj nga ko waaye buñ la waxee li muy li muy jar nga won ko gannaaw nga bàyyi ndax benn bi di si njëkk duñ la nattu nattu bu wàll yi nattu bu yonent lañ lay nattu te bu ko sa bakkan aar nga jóge fi limal ko li ñu wax ci laj ak kë limal ko ne ko daañu la booleeg say noon yoo xam ne yàlla daf leen di jox kàttan ak pexe ak coxat bis boo leen ne lu ma jotee yéen lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo leen ne fu ngeen ma jëmee lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo nee uh bonk lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo tëddee nelaw ci lal loomu lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo doxee ba gees sa gannaaw lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo toogee waxtaan ba wax li nga bëgg a wax yépp lu ma la mayoon dinaa ko nangu bis boo limal ko daal yu bari ba muy lim boobu bi nga xamee ne nag nee na ndax foofu it da ngay boo ci duggee da ngay daal di jaaxle ndax wax yi dafa bare bare bare bu ci nekk yoonu maanaa nag waaye yoon woowu li muy wax mooy wi ci gën a gudd bi nga xamee ne jaayonte na loolu ba sóobu ci bi mu ci sóoboo ñu ne dafa àgg ci maqamu moo xam ne lu sa xel dem daañu la ko jox bu fekkee ne nag lu xam ne kenn mënu ko am lu dul ci njëg la dañ la koy jaayaat bu fekkee ne nag loo xam ne lu ñu la mën a may la daañu la ko may bu fekkee ne itam lu ñu bari ñaanu wala lu ñu bari wutoon te xaña guñ leen ko joxaguñ leen ko daañu leen def lu mel ne concours ñu ne nekk nag di xaadimu rasul moom bokkul ci njëg gi ñu la joxoon gi ñu la jaayoon waaye nag bari woon nañu ko sàkku bii yoon lii kat duñ ko jaayati waaye dañuy seet ku gën a yeyoo ñee nag natt nañ leen ci juróom-ñeent fukki àndaar ak juróom-ñeent ju ci ne mu fees ko ju ci ne nag ku ci nekk am joo ko feesul ñu jox ko ko kooku mooy wax ji gën a gudd kon nag ci ay ay wax yi wax wax la yoo xam ne waaye daal jagleel bu ñu ko jagleel la boo xam ne mosuñu koo jagleel kenn moo xam dañoo wax suñu borom dafa xool xool yi mu gën cee sopp yoon si mu jox ko wala dafa jaar foofu wala yeneen yi ci des yëpp benn bu ci nekk waaye bu ci nekk mën nañ caa jàpp bu ci nekk xalaat la bu rafet wala wax la joo xam ne fa ñu ko jëlee dëggu na te mënu la tax mënu la dàqu dàqu ji ca des beneen bi ñu tey sharia ak xaqiqa lu yomba teqlee la sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen a ngi nii doomu aadama laa ni yéen ñaar dana ñëw fi man di layoo kee am dëgg waaye du waxkat kee amul dëgg waaye ku mën a wax la mu wax ba yoon jox ko li ngeen doon xëccoo waaye képp koo ci xam ne kat jox naa ko lu mu moomul ne wóor na safara laa dagg jox ko na ragal yàlla delloo ko ko moom kon sere am mooy atte ci kaw ay tegtal yu wér ak i seede xaqiqa mooy la ca biir benn foofu ñaareel sere am mooy atte yi nga xam ne dafa ñëw ci alquran ak ci hadis nga xam ne ñëpp la yemale ni ki julleeg woor ak asakaat ajeeg yooyu yëpp xaqiqa mooy diggante jaam bi ak boroomam sharia loi la xaqiqa relation la maanaam bu ñu nee loi loi ñëpp lay atte ñëpp na ñëpp na fay impôt xamul kenn kenn waaye nit ki ay nit ki ak président bi seen diggante dañoo amante wala wala dañoo xaritoo ba benn lañu la mu koy defal yoonu yoonu waa nekku ca kooku mooy xaqiqa bi xaqiqa diggante borom borom bi ak jaam bi rek la yoonu sharia néew ci yoonu keneen néew ca yàlla su ko sooboon mbindeef yi mu bind yëpp mu may ko kenn su ko sooboon mu may ko kenn nit ndax mas naa rey li mu bindoon lépp ngir jenn nit muy noox bi Muusaa di dugg bi muy bi muy dugg Saam ñett ñett téeméeri war yi nekk na fa ñu rey mu rey leen ikraman li Muusaa ñu ne loolu lépp roox yooyu yëpp day yokk dolli ko ci roox Muusaa gën ko may doole doomu aadama moom moo ndundat yi xar yi ak bëy yi ñooyam fa yàlla ci nekk bakkan nga am te mi ngi dagana doomu aadama muy rey ndundat di ko lekk te du ci am bàkkaar kon fab na doomu aadama teg ko ci kaw bàyyi mu gën ko wala xad karam naa bani aadama ko fab na am alaaka xib naa xaat naa tax filam loolu la fas yi nga di leen war di leen dóor di sëf mbaam yi te doo ci am bàkkaar te yéen a yem loolu bokkul ak waaw mooy loolu mooy xaqiqa mooy sañ-sañ neex bànneexu yàlla la ko neex mu def ko ci jaam bi jaam bu ne mu jox la lam lam la yéene kooku mooy xaqiqa bu ko neexee mu ubbil la magasinam yi bu ko neexee mu ubbil la bunti xam-xam yépp bu ko neexee mu jox la kàttan goo xam ne joxu ko keneen kooku yoonu sharia nekku ci loolu mooy xaqiqa xaqiqa mooy xam-xam bi nga xam ne ma nga ca lawhul mahfuz te ñëwul ci àdduna bi xaqiqa mooy jànloog nit ki xam kii aji texe la wala aji texe bi la kooku xaqiqa ko xam ne xaqiqa mooy li tubaab di wax réalité li am sharia mooy àtte bi àtte li ñu àtte ab àtte rek la du jëmm li am nag ci boppam ñu di ko àtte loola mooy xaqiqa li am wala ñu mën koo bañ a àtte buñ la nee nit boole na xaqiqa ak sharia moo di boole na tasawuf ak saqat tawxid ndax sharia mooy saq yoonal gi ñu yoonal ne nii lañu war a jullee nii lañu war a jàppe nii lañu war a woore nii lañu war a sëye nii lañu war a jaayante jëndantee def ci nii araam na nii lañu war a jàppe idda nii lañu war a reye xarum tabaski nii lañu war a def yooyu mooy mooy mooy mooy sharia waaye nit ki def ko am ci benn yool keneen def ko am ci junni yool loola xaqiqa la boo dee julli mën ngaa génn sharia ak xaqiqa ci biir julli gi sharia lu ciy wàllam daf naan la na nga fab ndox mu laab moo xam ne soppikuwul ci mewam soppikuwul ci cafkaam soppikuwul ci xetam nga jàppe ko nga jublu penku li nga sol na laab béréb bi nga nekk na laab nga kabar kabaru armal tarifaate ak saar rukkoo rukkoo yu mat siggi sujjóot sujjóot yu mat siggi ba àggal li mu brakaay yi nga sant nga taayee sëlmal loolu la sharia xaqiqa nag moo naan la bi nga kàbbaree kat contrat nga signé ak yàlla wan nga ne ko léegi diggante bii may kàbbare ba bu may sëlmal yaa moom sama sa lépp ci yow laa koy def sama xel sax dootuma xalaat mbiri adduna dootuma xalaat samay mbir dootuma xalaat mbiri keneen yow rek laa ko sàkkare sama xel ak sama xol ak samay cër taxawaay bi nga taxaw mu di la di la fàttali taxawaay bi ngay taxaw ca kanamu yàlla yowmal xiyaam boo jàppee ci say wóobu moon la ne màggu suñu borom gi yaa ngi damm sa cër yi yaa ngi damm sa sa sa taxawaay bi ci kanamam nga fas ak toroxlu siggi nga xam ne alxuraan bi nga doon jàng yaa ngi teewlu ne waxi yàlla ci boppam ngay jàng bi nga këppee sa jël nga wan suñu borom ne ko wàcc naa daanu naa toroxal naa sama bopp si nga gën a fonk ci sa bopp mu di sa kanam nga teg ko ci suuf di xalaat suuf si nga xam ne ci lañ la bindee woon te ci ngay dellu ci lañ lay suul nga toroxlu toroxlu bu mat fàttaliku teewlu màggu sa borom ba mu mel ne day dañuy bës sa xol bi di ko nag nga tiit yëg màggam googu yëg sañ-sañam bi nga xam ne moom nga jaamu ragal nam la ko sant nga bañ koo mën loolu xaqiq la sharia moom ba nga defee gis bi rek la ca génnoon bu fekkee ne sharia sàcc nga dem aji aji sellaloo ko da ngaa bëgg tur wala da nga bëgg ku lay wooye alaaji wala da nga bëgg dem gis màkka sharia du la ne ajaatal sa aj gi baaxul waaye xaqiqa moo lay xamal ne la sa jëf ji sellul sa jëf ji sellul da nga ca waroon a namm jëmmi yàlla rek te li nga yóbbu dafa war a leew bu nga xam ne lii loo ñaq la mu lew la wala luñ la may mu lew la ki la ko may mu lew ko mu jox la ko ci xol bu tàlli nga jóg ngir jëmmi yàlla ak matal safara ci ji nga def ko ba noppi tiit ndax xamuloo jëf ju toll nii nga def ko te xamuloo daañu ko nangu wala duñ ko nangu ngay ñaan suñu borom yàlla na nangu sama jëf ji fekk la nga mën lépp def nga ko loolu la xaq sa di sant kon xaq sa ak sharia dañoo dem mun ñoo teqlikoo nag ndax julli gi bi nga koy julli lenn ci li la ci sharia sant boo ko ci bàyyee rek julli ga du mooy benn ponk da ngaa wax ci benn sujjóot wala benn rukoo wala tariwa fatiha du mat waaye itam bu fekkee ne def nga rukoo ak sujjóot yi yépp itam ci sharia mat na kenn du la ne la julliwaatal sharia du dal ci sa kaw waaye xaq xay dal ci sa kaw wan la ne la bu keroogee duñ la fay ndax bi nga xabare bi bi ngay sëlmal yaa ngi xalaat mbiri adduna yaa ngi xalaat leneen kon julli gi ci kaw rek la féete waaye defuloo ko ci biir sa biir sa baatin julliwul sa saahir rek moo mooy julli kooku sharia ak xaqi kon foofu la ñuy dal di teqli ko kon defe naa ne mën na ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu